ci compte yi nga xamante ne am nañu ko ci réseaux sociaux yi. ginnaaw bi ñu la euh, ziaree ñu bàyyi la nga yook suñu xarit yi. Euh, di la wax euh, déwénati Assane. asalaamaaleykum Pape Cheikh déwénati. Mm-hmm. bal ma naa la. yàlla yàlla bu la jéggal. maa ngi ci profito di ziar àdduna bi yëpp. Mm-hmm. di baalu ñëpp ak. te tamit di bal ñëpp ak di ñaan yàlla defal ñëpp jàmm. Euh, Sénégal tamit nga xam ne am lul moom. Uh-huh. yàlla def fi jàmm. Uh-huh. Euh, ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc mbégte la pour man tey ji uh-huh. euh, ma ñëw fii ci bisu tabaski bi. di saafonte ak yow pour may ko ñi nga xam ne. ñooy faral di seetaan TFM. voilà bis bu mag ndaanaan bu mag. c'est pas pour rien tey. television Futurs Médias tànn la. pour ñu ànd ci guddi tabaski pour mm. béggal sénégalais yi. nga ñëw nag ak groupe. géwél gi macha allah euh, naa euh, dafa am euh, loo xamee ni duñu koy faral di def mm-hmm. waaye baax na itam mm-hmm. ñu présenté ñi nga xamante ni ñoom nga àndal parce que kenn ku ci nekk ginnaaw bi nga tabaskee sa kër dañu la topp ànd ak yow tey ci TFM waaw macha allah loolu tamit mbégte lay doon mm-hmm. ndax xam nga bon nekk ci kanam yow rek maanaam doo jëriñ mu lu bari donc majeure partie liggéey bi yëpp li nga xam ne ñoom ñoo koy def mooy ñi nga xam ne ñun ñoo nekk sa ginnaaw te ñi nga xam ne nag ñoo nekk sa ginnaaw mooy les musiciens. Mm-hmm. donc damay wax ne toujours musicien kenn amul seen fay. Mm-hmm. donc lépp ñoom la donc mm-hmm. seen normal ñu toog war leen ñoom tamit wax leen déwénati ba pare. baal leen ak ba pare tamit présenté leen ñi nga xam ne ñooy seetaan. te da nga yàgg da nga da ak ngéwél gi. waaw ngéwél gi de moom 2000 euh, la woon. 2000 ba tey waaw 2000 ba tey wax dëgg yàlla. ñoo ngi yàgg na yàggul. waaw yàgg na yàggul 24 ans xaw ma 23 ans. waaw nag euh, ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi góorgóorlu di di ko sant yàlla. Mhm. parce que nag du du du njàmbaar. déedéet maanaam ndimbalu suñu borom la. Mhm. muy dund ba léegi. Mhm. donc loolu dama ci am mbégte ak contentement. bokk na ci groupe yi gën a intemporel ci. 2000 euh, <laughs> ba 2023. Euh, daanaka génération yu bëri. waxuma rek Assane Ndiaye. waaw waaye ngéwél gi accompagne na. ay génération yu bëree bëri. macha allah waaw lan mooy force bi ak sa kër. ah dara nag lu dul xanaa mooy li ma njëkk a wax. Mm-hmm. d' abord ndimbalul yàlla. ndimbalu suñu parce que am na loo xam ne du mm-hmm. yàlla sama borom moo ci teg loxoom. Mm-hmm. ba pare nga fexe say waay jur ñaanal la ci. sa yaay ak sa papa ñaanal la ci nga jéem. yow tamit loo ci loo ci mën ci lu baax rek nga def ko. Mhm. waaw loolu moo tax et puis li ci neex mooy. Mhm. jamono bu ne. Euh, la xew ci wàllu musique. waaw da ngay gis ni euh, euh, Assane Ndiaye ak groupe am. dafay adapté wu. ci jamono jooju. waaw cofeel moo moo mujjee génn. tout à fait mais boo ko dégloo dangay xam ni lii musique mm. jamono ji la. waaw tout à fait parce que cofeel aussi. Mm-hmm. sax du du ngéwél gi rek. Mm-hmm. parce que cofeel bon pratiquement dama jël presque ay musiciens yu bari ñoo xam ne bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoo gën a am solo ci musique sénégalaise mhm. ma jëleen kenn ku ci nekk ma jox la ñii benn morceau ñii ñaari morceau mhm. ba ñu defar album bi mhm. donc macha allah mu nekk loo xam ne diversité am na ci donc du côté bi rek du côté bi waye naa nii waye naa nii donc sant yàlla alhamdulilah te loolu euh, dafa nekk ci yow depuis très longtemps li tax ma ibbee euh, waxtaan ak euh, groupe bi maa ko xam parce que ñoom it souvent ci ginnaaw la ñuy nekk te lu ci dund. Mhm. Euh, defe naa euh, ñoom la. Mhm. Euh, bu ñu ñëwee nag ci tabaski. waaw lan la lay inspiré. tabaski lan la may inspiré xanaa bon à part. xam naa ne bokk na ci feet yi nga xam ne sénégalais yi moom la ñu gën a bëgg. mais est-ce que yéen musiciens yi da ngeen koy feetu. bon tëggi soirée. waaw waaw tëggi soirée parce que boo da booy xool bu njëkk en général jour tabaski moo daan gën a ëpp ay programme mais léegi Ah. apparemment léegi lendemain. sur lendemain <laughs> loolu la gars yi wax. parce que jour bi dama yaakaar ne que gars yi affaire dañuy dafa leen di jàpp. Ah. ba du ñu mën a tal génn. Ah. donc léegi en général ay lendemain la ñu tëgg donc. Mm-hmm. mais nag aussi tabaski loo xam ne la euh, dafa bokk ci euh, li nga xam ne maanaam yàlla suñu borom def ko daf ñu ko sant. Mm-hmm. waaye nag ñun sénégalais dañ ciy dem ak xiir. Mm-hmm. lool maanaam. dafa doon fête boo xam ne li maanaam li mu ëmb. Uh-huh. moo moo bari. Uh-huh. maanaam euh, di nga gis. Euh, ku ci def loo mënul ku ci def loo mënul. Uh-huh. wala nga digg ci loo mënul. wala nga def ko ba nuppi. ci guddi ga doo nelaw. ndax yaa ngi xalaat li ngay. <laughs> guddi tabaski ku ci deboon. voilà war ngaa ruus. ah day na waar de <laughs> war ngaa war ngaa am xarit. wala nga wala nga leboon menn xar. nga tëdd. lekk yàpp ba pare guddi jot nga war a nelaw ngay xalaat noo ko war a payee ji ah ngi noonu <laughs> voilà mais tabaski ren bi itam Sénégal mm-hmm. euh, dafa euh, tombé ak euh, contexte bu xaw a doy waar tout à fait ci politique yeeg mm-hmm. ci yenn ci ay coow tout à fait yoo xamante ni peut-être mm-hmm. baaxoowuñu di ko gis dëgg fii ci Sénégal tout à fait yow en tant qu'artiste waaw en tant que porteur de voix bokk nga defe naa ci icônes yi gën a mag ci wàllu musique sénégalaise bu tabaski demee nii tey ñu am ci ñu jóge lan am envie wax sénégalais yi Assane. bon euh, li may wax rek mooy d'abord ñun Pape Sénégal. Mhm. dañ xam ci jàmm ak salaam. Mhm. bañ nañ ko ba dañ naan le pays de la teranga. donc euh, fan yële passé dama am sama benn euh, xarit bu nekk Allemagne. Mhm. astafurlah Londres. mu di tooñ di ma kaañoon naan ma Assane où est la teranga sénégalaise. <laughs> ma di ko tooñ naan ko ko mu fi donc. li nga xam ni moo am solo ba am solo mooy. dañoo war a defaraat jikko yi defaraat jikko yi mooy di wax lu baax di def lu baax di yéenante lu baax euh, ngir yàlla te yàlla tax mm-hmm. euh, et puis moytu wax yoo xam ne dafay yàq mm-hmm. euh, moytu am na fi benn morceau bu taskatu xibaar yi waaw ku siiw yéen a ko siiwal dëgg la ku yàq ko yéen a ko yàq dëgg la mm-hmm. donc àddina bi dafa doy ba nga xam ne léegi nit ñi maanaam am na yu bari yoo xam ne sóoratuñ ko te dañoo war a delluwaat ginnaaw li valeur yi nga xam ne moom la ñu xamee woon ñu jëlaat yooyu yooyu valeur dund ko yaakaar naa ne bu ñu ko defee incha allah rabbi Sénégal jàmmalayam parce que mag ñu baax ñaa ngi ñaan kilifa diine yaa ngi ñaan macha allah te tamit nañu santaat yàlla bu baax te xam ne am nañu réew moo xam ne a ah, war nañ cee góorgóorlu sàmm ko ci ci ci li li li ñuy waxtaanee souvent sa ay euh, œuvre boo delluwaatee ginnaaw mhm. euh, euh, na ci thème yooyu développé waaw surtout tolluwaay réew mi actuellement. waaw parce que avant album bi yow ko développé. ah il y bi am na benn morceau bu tudd wax jot na. Mm-hmm. maa ngi naan jóg leen wax wax jot na ñi war a wax wax jot na. Mm-hmm. seetaane ngi ci réew mi jóg leen ci. Mm-hmm. boobu temps dama doon euh, alerte maanaam parce que xam nga jikko bu yàqoo. rek euh, société yàqu te léegi euh, maanaam li ëpp. bu njëkk mbedd mi moo daan yàq jikko yi. dëgg la mais léegi li yàq jikko yi dafa gën a yomb ndax mm. téléphone yi. ndax yi. waaw daanaka lépp ubbeeku. waaw maanaam léegi yow da ngay da ngay jur sa doom. Mm-hmm. yar ko ci kër gi. Mm-hmm. mu génn. Mm-hmm. am benn yarin ci mbedd mi. ñooy déet waaye mu yor téléphone. mu amaat benn yarin. mën naa toog ci kër gi sax teye téléphone am am benn yar. mu ngi noonu voilà. internet bi mel ni mbedd. voilà mu ngi noonu. moo tax loolu lan moo lan moo ciy solution. solution bi mooy maanaam wax naa ko ci. Euh, morceau bi. ci mhm. album bi. Mhm. am na ci benn way bu tudd euh, fi jamono toll. Mhm. ak ni ñuy dunde da xas ku la gën. da ngay tooñ ku la mën. te bu ngeen jàkkaarloo doo ñemee siggi xool ko. dëgg la de. waaw <laughs> lii daway naa ko ci ci album bi <laughs> waaw. Uh-huh. Ah, donc. Mm-hmm. moom mu nekk nag tamit morceau bu am solo. Uh-huh. mooy nekk moo nekk deuxième morceau ci album. ci album ci jamono toll voilà. voilà defe naa dañu waxtaan bu baax ci euh, album bi. waaw ah. waaye nag ay way mënul ñàkk. déedéet man xam naa ni boo ma toppee. waxtaan <laughs> damay làngo waxtaan ba fajar. voilà ndax toog ak yow. Ah. Euh, defe naa daf may bégal te day bëggal itam. man euh, mii xarit yi. Euh, ma fàttaliwaat leen ne ndéwéel yi dañu koy séddale ci numéro de téléphone yi nga xam ne ñu ngi affiché wu ci suuf écran bi. Mhm. Euh, du jar ma leen di fàttali benn euh, Assane la ñuy bàyyi. Mhm. mu dem ci scène bi. fekk musiciens yi. waaw tey nag da ñoo beral loxo. waaw ndax am na ay surprise yoo xamante ni. Ah. di ngeen ko découvrir ah. bu ca kanamee tuuti. Ah. mais dafa am ñaari woy yoo xamante ni benn bu ci nekk. waaw dinañ ko expliquer bu ca kanamee. muy siiw. waaw ak bëgg ci yow. bëgg ci yow. waaw waaw ba tey parce que siiw. Mhm. wala da nga bëgg ma dem ma ma dem ba ñëw. ñu woy ko doog koo waxtaane acca ok bisimilah acca Assane Ndiaye sur seen euh, ci di tabaski ci télévision Futur Média ngeen di woote euh, ñu leen di xaar pour jox leen seeni i ndéwénal euh, live lañ leen di proposé tey ngeen mën ci békk yéen ñi ànd ak ñun. loolu xel dem ci Thione am na ku bind léegi man ngi ko naan xaat ci commentaire yi nee na bu fi yemoon sax neex ma ne ko yow émission baa ngi doog a door benn way jàll nga dund ko soxol sedd nga ni bu fi yemoon neex ah <laughs> duñ ko fi yemale euh, dañu lay bàyyi nga àggali euh, pendant que ngay euh, nga ñuy mayaat beneen morceau ñu euh, profité ci fàttaliwaat téléspectateurs yi mën nañoo dugg à tout moment ngeen woote en direct ñu jox leen seeni i euh, ndéwénal euh, tey ci guddi tabaski ci télévision Futur Média donc numéro yaa ngi noonu di affiché wu ci suufu écran bi tey guddi gi yëpp nag Assane Ndiaye moo ñuy bégal ci télévision Futur Média. ci sama yaram mooy euh, deuxième titre bi ñu Assane Ndiaye may euh, dinañ fekk si waat léegi nii ci euh, plateau bi ñu àggali waxtaan bi waaye dañ ciy profité rek jël leen ci téléphone yi en attendant Assane Ndiaye di ñëwaat di ma fekk si ñu jël sunu xarit yi parce que xam naa ni sànq ba tey yéen a ngi composé bëgg ñoo jot ci 88 628 22 22 wala 88 628 20 20. bi aboon na ngeen profité tey ci guddi tabaski bi ndax li ñu fi yor ci ay enveloppe bëri na. Euh, ngeen jot ñu en direct ak ngeen ñàkk ñoo jot am na équipe yu nekk ci ginnaaw ñu mobiliser leen euh, ñoom itam dañ leen di euh, jox ci enveloppe yi même bu fekkee dugg leen en direct tey ci soirée bi ñu am chance nag dugg en direct defe naa ñu am wërsëg lanu puisque am na kenn ku nekk ci ligne bi léegi nii ñu jël ko alo alo alo allo. waaw yaa ngi dégg. wa kooku. ça va man la maam jaara maam Diarra baal leen ñu àq baal nañ leen. baal nañ la baal ñu nu ngeen def ak tabaski bi maam jaara tabaski bi passé nañ ko ci jaamu ak salaam neex na trop. macha allah yaa ngi woote fan. maa ngi wootee ba Malika. ah ngi wootee Malika. Mm-hmm. yow duma la duma la duma la téye lu yàgg ci ligne bi dama lay teel a libéré jox la ndéwénal bu duun. looy wax nii. maa la wax li loolu neex na de. bu dee yaa sa téléphone télévision Futur Média may na la euh, ndewenal bu toll ci deux cent mille. ah loolu neex na Pape tamit. yaa ko ah merci beaucoup. waaye koy yónnee directement ci sa euh, téléphone portable balaa ngay raccroché. ah mu ngoog jërëjëf et bonne soirée. ok merci waay. waa kay nuyul ñu waa euh, kër ga yëpp bu amaatee beneen téléspectateur ñu jël ko euh, jox leen ci euh, ndéwénal yi ay ndéwénal yu foor laay joxe tey deux cent mille laa maye léegi. Euh, mën naa ci taggat yeneen i enveloppe euh, fii ba keroog ñuy jeexal euh, soirée bi ci <clears throat> télévision Futurs Médias ak Assane Ndiaye ak ngéwél gi ma may leen quelques minutes le temps ngeen composé benn ci numéro de téléphone yi man maa ngi leen di jël en direct am na itam ma fàttaliwaat leen ko équipe yu nekk ci ginnaaw ñu mobiliser leen tey spécial soirée tabaski pour di leen jox seen i ndéwénal def naa ndéwénal bi mënoon nañoo yam rek ci Assane Ndiaye woyal leen mm. ndax teraanga weesu wut Euh, dañ cee teg ay enveloppe yoo xamante ni mën na leen a bégal ak fu ngeen mënti nekk euh, donc bu amaatee keneen euh, ñu jël ko léegi nii laataa ñuy li waxtaan week Assane ñu ngi woon ci point bu am solo woy ah. wi nga xamante ni daanaka mooy liimaayam hmm. di woy woo xamee ni tax na ma ñu la léegi hmm. mënatoo def dara waaw sans coon tout à fait parce que parce que tamit mooy li may wax rek hmm. xam nga boo nekkee xale booy màgg dangay am idole te moom Euh, euh, dafa nekkoon sama idole. mais moom it daf la faawoon. waaw parce que cofeel la woon. waaw cofeel la gu mu amoon ci man. Uh-huh. moom ndeysaan bu daan bu lekk sax saan jot. tant que man ñëw ma du ñu lekk. ndeysaan ah ana Assane Ndiaye lay wax. Mm-hmm. parce que temps boobu nag euh, loxo lañ daan lekk ndeysaan loxo. moom su ma su ma masaan a tibb dafay kontaan <laughs> parce que parce que daaw ma daaw ma bu ndaw. dafay <laughs> militaire. voilà tibb soldat. <laughs> donc te <coughs> bien que man woy naa siiw. mais moom siiw bi mu woy. man laa gën a yëg que man li ma woy. moom laa gën a sentir. lu tax. Euh, je sais pas yëg-yëg la. Ah. parce que xam nga man pratiquement yàlla dimbali na ma ci lenn. Mhm. moom euh, lu mu woy. Mhm. su ma ko bëggee woy ni mu ko woyee. Mhm. dinaa ko woyee ni mu ko woyee bañ cee yokk bañ cee wàññi. Ah. mais aussi nag su ma neexee. Ah. ma woy ko. ni mu ko woyee mais yokk ci wala ma wàññi ci Mbadou loolu moo tax euh, am na loo xamante ni tout le temps dañ la koy fàttali. waaw ci archive yi. bi mu doon wax ni. moom bis bu demee ba euh, euh, lem ay kookam. waaw des na waaw waaw Assane Ndiaye mooy doon coon de. est-ce que loolu itam du ñëwaat. du ñëwaat tout le temps ci sa. waaw parce que loolu xel souvent ci say interview. waaw baat boobu wala image yooyu dafay ñëwaat. parce que loolu Pape Cheikh xam nga man morceau bi njëkk bi ma njëkk a ci àddina. Mhm. maanaam mu figuré ci. kaset. Mm-hmm. parce que boobu temps kaset la. waaw kaset la Daara euh, mu ngi nekkoon ci benn kasetam euh, bu tuddoon papa. Mm-hmm. ma woyoon ci ñaan gi. Mm-hmm. ñaan gi moo nekkoon première woy bu ma mas woy mu génn. kaset ci kasetu coon la ci kasetu waaj ci kasetu Ramadan la nekkoon. mais bi morceau boobu génnee maanaam ñu bari dañoo foogoon ne que maanaam coon mooy woy maanaam ñu bari. xamuñu woon nekk xamuñu man maa woy wa merci beaucoup maanaam dañu tegoon nekk coon il a fallu que moom ci boppam ndeysaan ca mbaax gaag yëpp mhm. tu vois mu dima loo ay playback ay télévision mhm. pour ñu xam ne que man maa woy woy boobu ah. tu vois donc kon bon loolu mu yàgg na ça veut dire que moom daf la daf daf daf dafa daan gis boppam ci Assane waaw loolu kañ moom kenn kenn kenn waxtu loolu même sax bu masa bu masaan di répété uh-huh. yàlla mi ma tiim xam na ni ay musiciens yi ko daan joué ñu ñu may dégg. Hmm. moom dafa daan toog fële man maay répété. nga way ay woyam. waaw maa ko daan way wax dëgg hmm. yàlla. donc lu yàgg loo xam ne. Hmm. bon dafa dafa dem ba nekk ci man. voilà après finalement est que woy ay woyu coon yomb na. déedéet. bu ñu fàttalikoo daaw euh. daaw jéeg ci heure bi waaw euh, da ko génneel album. waaw. traditionnel traditionnel waaw wayaat ci ay wayam waaw euh, def ci def ci euh, euh, ay ay ay ay ay ay way yoo xamante ni mhm. boo ko dégloo gëmm sax da ngay foog ni coonoy way tout à fait waaw parce que loolu maanaam ci man ci traditionnel laa jàngee way ah. parce que évidemment boobu temps fekkagul nag may way mhm. mais maa ngi doon jàng mais après nag euh, bi at yi dem nag mhm. ma commencé nag di dugg nag ndànk-ndànk cooy yi mhm. euh, dama cee namp mhm. ñu toqantal ma ci <laughs> nga màgg ci <laughs> c'est ça ba pare tamit moom ndeysaan mu <coughs> couvé ma ci maanaam euh, musuma woy ba mu ma ne neex na wala baax na toujours tu peux mieux parce que dafa exigeant. waaw exigeant trop nag waaw. te dégg naa exigence boobu moo nekk ci yow. léeg-léeg ma woy ba pare mu ne ma li nga woy lépp nga mbal tubaab. dara baaxut ci dara baaxut ci <laughs> wala mu ñëw ne ma yow xanaa déglu woo. <laughs> Uh-huh. ndeysaan macha allah. Mm-hmm. Maria Sène yàlla na ko yàlla xalaal jënd. waaye daal. Uh-huh. xam naa ne moom ah ku jàngal moom. Mm-hmm. boo boo taree moom. Mhm. ah dinañ xam ne ki la jàngal mën na. <laughs> bi nga album boobu di ko ci euh, rendre hommage. Mhm. après nag toogaat nga diir. waaw euh, boo xamante ni. Mhm. Euh, génnewuloo. waaw ba. affaire Covid. Covid voilà uh-huh. moo fi moo fi doxoon ak tout parce que man au fait deux mille euh, décembre deux mille vingt. Mm-hmm. non de décembre deux mille dix neuf. laa génne ci nga génne woon. album bi album bi euh, mu tudd Love naa la. Uh-huh. après ci la voyagé. Uh-huh. dem tournée européenne. Mm-hmm. bi ma ñibbisee euh, février deux mille vingt. Mm-hmm. ñu def suñu grand théâtre ba. ci la ñëwee woon moom. loolu amatul. wallaay ndeysaan <laughs> voilà donc à part loolu. Mhm. loolu laa fa génne ak album cofeel bi. album cofeel je pense que dinañu waxtaan ci cofeel léegi nii. parce que euh, euh, titre album bi rek. Mhm. dafa dafa dafa dafa neex. waaw cofeel moom. waaw bon moom sama sama doom ju tudd madame Gaye Clara. Mhm. maanaam moom moo porté. Euh, projet bi projet bi. moom moo def lépp. wax dëgg yàlla macha allah. Mm-hmm. ma di ko ci gërëm bu baax di ko sant moom sama doom la. <laughs> man ak moom dañoo yàgg. parce que projet bi. Mm-hmm. Papis Niang moom ma moo ma wax ne ma. grand dama bëgg ñu def benn album. mais nañ ko tas. maanaam waaw jox Papis Konaté jox Dembel Diop. Uh-huh. jox Papis Ndiaye. Uh-huh. jox Jules Diop. Uh-huh. jox Ibou mbay maanaam maam ak ak ak ngewel naan yaa ngi noonu. voilà donc ñëpp nag. ñëpp ci joué nag. ñu euh, def lépp parce que Papis Konaté moo nekkoon euh, le réalisateur. après nag ñu def lépp ci studio Papis Konaté. donc loolu moo waral ba affaire yi am diversité. ah maanaam da ko tasaare daal. dama ko tasaare loxoom. voilà donc sama doom nag moom xam nga moom. Euh, ku ne xam na ko ci cinéma. Mhm. moom yàgg na def cinéma yàgg na def ay série dugg ci ay série mhm. mhm. mais musul dugg ci côté musique bi côté musique bi mais bii nag moom mën naa ko ne doom kaay. ñu mën ko kaay jàppal sa papa fii. <laughs> moo tax it jàpp donc waaw waaw wala walaay. bi cofeel di bëgg a génn. Euh, bëri na bruit. bari na bruit bari na coow waaw. mais ñu ngi doon xaar itam événement bi. waaw bi parce que euh, yàlla dafa dogal album bi génn wax dëgg yàlla. Sénégalais yi jël ko. apprécié dafa génnandoo ak vidéo Mass Ndiaye mhm. nit ñi bëgg Mass Ndiaye wallaahi donc ñu jëm nag ci le 17 juin mhm. pour suñu grande nuit bi nga xam ne moom la ñoo def King Fat mhm. malheureusement lii xew Sénégal xew ba ñu reporté ko mais incha allah rabbi dinañ ko def parce que moom sax nee ma papa. dinañ ko def incha allah t'inquiète pas bi sama yàlla. damay delluwaat ci ginnaaw. Euh, euh, par rapport ak sa public. Mm-hmm. Euh, tey foo mënti tëgg. Mm-hmm. ci ay at ba tey. waaw da gis ni ñi la doon topp. waaw ba léegi dañu lay topp. waaw fidélité boobu nga xamante ni Assane Ndiaye am na ko. ak mm-hmm. public am. am na sax secret bi. am na sax ñoo xam ne dañ ma daan léegi ñu ngi ànd ak seen i doom di ñëw. <laughs> xam nga Pape Cheikh. <laughs> mais fidélité boobu noonu Assane am. Eh. ak ak ak ak ay soppeem. waaw dara nag yaakaar naa ne bon. xam nga man nag dama am benn esprit d'ouverture boo xam ne damay préféré xam nga samay nit ak samay fans dama leen di jege maanaam du ma leen sori dinaa leen jege dinaa saafoonte ak ñoom bañ naa a ñëw toog sama oto nit ñi la fekkee naa ko waaw nga dugg ci waa donc saafoonte loolu tamit mhm. daf ciy baax mais bu soirée jeexee da ngay taxaw ci biti di joxe paas nit ñi di <laughs> loolu loolu moom du dara loolu dañuy wax rek <laughs> loolu yàgg nga ci waaw loolu tamit loolu tamit daf ci baax loolu loolu jikko la mm-hmm. am nga jikko moom ak boroom pax rek wallaahi man munuma mukk ci àddina ma yëg ci kaw seen ñu may ma xaalis après ma génn dem non non mm-hmm. je préfère taxaw kañ mm-hmm. ku ci sa wërsëg nekk ma jox la après nga dem voilà am na itam beneen laaj boo xamante ni fu ñu tasee ma laaj la ko mooy te loolu ñëpp la koy laaj mooy euh, lu tax Assane latewul euh. maanaam lañ lay gis <laughs> waaw euh, pourtant nag. saa yoo génnee rek farataa tax nga génn. waaw naay génn de waaye daal. Uh-huh. li ëpp ci sama génn moom. Mhm. mooy yeewu sept heures du matin dem sport. mais génn ëpp génn. génn ci public bi laay wax sax. ah waaw loolu de moom bariwul de. waaw xanaa lu mel ni lii. Mhm. wala ma génne album. Ah. wala ma war a def concert. Ah. wala ma war a nangam sangam tukki ah. mais daal. Euh, gis ma bëccëg sax yombul estomac mais kan moo la tàggat ci loolu parce que loolu xewatul daanaka léegi euh, nit ñi lu ñor ñu wax. Hmm. lu ñorul ñu wax. ku nekkay génn ku nekkay wax mais toujours. même Assane bi. xam nga barki démb démb ak tey. toujours même Assane boobu la ñu am quoi. waaw mais xam nga parce que tout simplement xam nga jamono ji. Mhm. dafa xaw a tëradi lool Pape. Mhm. te gis nga boo gàttul tànk tuuti. Mhm. xaw a gàtt làmmiñ. accident mën naa ñëw. te léeg-léeg day am accident yoo xam ne pour réparer ko day jafe. donc je préfère nag toog sama coin. maanaam dund limay dund. Euh, man damay naa toog deux jours ma génn sama kër parfois yàlla xam na ko mhm. wala boog su ma toogee ba guddi ma génn doxantu après mais mhm. tout simplement pas que Assane Ndiaye dafa ragal camé caméra wala du dem ci non Assane la teewul tout simplement c'est parce que man maa opté mhm. bu fekkee ne que yow da bëgg boo génnee wala buñ la invité fenn wala booy def dara ku waroon a dem sangu sax day bëgg a toog xaar parce que du bëgg mu rëcc ko dafa naan ah waaye mais kii de rarement laa koy dégg wala rarement laa koy gis kon xaaral euh, damaa war dem caaro yi waaye xaaral ma bàyyi ba mu jàll ma doog dem caaro yi évidemment que léegi nag moom internet bi tax na ba loo bëgg gis-gis ko ndax lu amoon santar <laughs> sax boo ba gis-gis ko <laughs> mais mhm. ba tey daal loolu daal mooy sama euh, maanaam jikko bi nga xam ne moom laa am te moom laa masa am na waaw mais nag su ma waree génn tamit nag damay génn coon moo la ci yar wala waaw lépp ci yar bi la rek waaw lépp ci yar bi la ak euh, sama yaay ju baax ji yaay na koy ngom wala formation militaire bi la loo boobu tamit daf ci yokk Pape man damay wax ne tout bon citoyen ah. doit faire le service militaire dëgg la man loolu laa gëm dëgg la man li ma gëm mooy gis nga service militaire daf lay yar ko euh, ku nekk ka doon def mhm. jikko yu bari nañ defaru mhm. parce que quartier boo fa demee dinañ dindi ci yow lu bari. Mhm. ba pare tamit def ci yow lu bari. voilà di nga mën a muñ. Mhm. te aussi fëkk du la yóbbu. voilà te naa feeñ na ci yow. <laughs> maa ngi <laughs> ngi góorgóorlu. <laughs> bu leen fàtte maa ngi leen di xaar ah. pour euh, seen ay euh, seen ah. euh, ci numéro de téléphone yi affiché wu ci suufu écran bi. Mm. bu amaatee ay téléspectateurs ñu jël leen léegi nii. Mm. mais Assane. waaw defe naa ak yow c'est plus de vingt ant de carrière. oui vingt trois ans. parce que deux mille ba. deux mille vingt trois Euh, euh, te loolu carrière ngéwél gi la. waaw n'a rien à voir ak dure bi ma def Ramadan. ëpp na ëpp na ëpp na vingt ans. ëpp na ko ëpp na vingt trois ans. voilà donc kon boo ko boolee dafay ëpp loolu. Ah. mais bu fekkee na que nag carrière solo bi la. Ah. moom c'est 2000. Euh, d'accord est-ce que am na uute entre musique démb. Euh, jamono yi passé euh, ak jamono yi ñu nekk nii mm, musicalement parlant ak euh, mode de consommation yeeg ñoom seen forcément parce que xam nga bu njëkk kaset moo amoon mhm. cassette moom mënoon ngaa xam mhm. ñaata exemplaire nga jaay. ni nit ñi nit ñi dañ daan xaar sa cassette. waaw embouteillage daan na war a génn vendredi. embouteillage am am ñu fanaan ni jeudi. voilà maanaam Sandaga pour a pour mën a njëkk am cassette Assane Ndiaye. daal xam naa ne su ma daan mës a génnee album. Mhm. Euh, ñu nekk ci région yëpp dañuy fanaan si. ñoo fanaan si Dakar dañuy fanaan si uniquement pour am kase. waaw Sandaga yeewu fajar. dem bu ko defee. Mm-hmm. Talla Diagne moom tamit ma di ko remercier waale. Mm-hmm. de passage parce que moom tamit joué na ci sama carrière. Mm-hmm. parce que defal na ma ay kase yu bari. léegi nag Talla bu parce que Talla dix heures lay wax lay génne. waaw mais mais da koy téye tuuti daf koy téye <laughs> daf koy téye indi fa benn genre embouteillage. xam nga après ba gars yi ñëw nag après mu doog ko génne quoi. macha allah waaw. parce que période yooyu noonu tamit defe naa euh, bu doon euh, dañuy joxe ay disque d'or sax kon am nga ci ba doyal album album ngistel ngistal mhm. euh, ay centaine de mille macha allah yàlla xam na ko te boobu daan nañu mën a compter parce que man dama daan toog ba ci yàgg taala woo ma foo nekk ma ne ko maa ngi sama kër mu ne ma kaay mhm. ma ñëw mu yëkkati xaalis bari na ma am ma ne ko lii nag mu ne ma jëlal mhm. mais est démb la gënoon neex kon que ah, ah si ah si bon parce que li nga mënoon jaay démb mun na ko jaay tey mun na ko jaay tey déedéet affaire yi léegi dafa jaxasoo affaire yi dafa jaxasoo internet bi yàq na yëf yi hmm. liggéey bi léegi pratiquement lu bari loo xam ne euh, doomu aadama moo ko daan def léegi machine moo koy def. Mhm. donc am na ñoo xam ne dañu dañu euh, opté pour côté boobu. facilité voilà mhm. am tamit ñoo xam ne nag ñoom liggéey. Mhm. mooy gënal donc. te ci te yéen ci seen période la gënoon a metti. waaw entre dugg studio bindu way. répétition c'est-à-dire détail par détail daaw leen ko fàtte. Mm. te bu njëkkaan mm. n'importe qui daawul way xam nga léegi ko jog way. mais yen da ngeen daan da ngeen daan. ma wax la bi gën a dee da sonn. ma dee. maquette sax pour ngeen amaan ko à l'époque ak ñun. loolu xel dem ci Thione Seck am na ko bind léegi maa ngi ko naan xaat ci commentaire yi nee na bu fi yemoon sax neex ma ne ko yow émission baa ngi doog a door benn way jàll nga dund ko soxol sedd nga ni bu fi yemoon neex ah <laughs> duñ ko fi yemale eh, dañu lay bàyyi nga àggali eh, pendant que ngay eh, nga ñuy mayaat beneen morceau ñu euh, profité ci fàttaliwaat téléspectateurs yi mën nañoo dugg à tout moment ngeen woote en direct ñu jox leen seeni i euh, ndewenal euh, tey ci guddi tabaski ci télévision Futur Média donc numéro yaa ngi noonu di affiché wu ci suufu écran bi tey guddi gi yëpp nag Assane Ndiaye moo ñuy bégal ci télévision Futur Média loolu mooy euh, deuxième titre bi ñu asset Ndiaye may euh, dinañ fekk si waat léegi nii ci euh, plateau bi ñu àggali waxtaan bi waaye dañ ciy profité rek jël leen ci téléphone yi en attendant Assane Ndiaye di ñëwaat di ma fekk si ñu jël sunu xarit yi parce que xam naa ni sànq ba tey yéen a ngi composé bëgg ñoo jot ci 88 628 vingt 22. wala 88 628 20 20. yaa boon a ngeen profité tey ci guddi tabaski bi ndax euh, li ñu fi yor ci ay enveloppe bëri na euh, ngeen jot ñu en direct ak ngeen ñàkk ñoo jot am na équipe yu nekk ci ginnaaw ñu mobiliser leen euh, ñoom itam dañ leen di jox. ci enveloppe yi même bu fekkee dugg leen en direct tey ci soirée bi ñu am chance nag dugg en direct defe naa ñu am wërsëg lanu puisque am na kenn ku nekk ci ligne bi léegi nii ñu jol ko alo allo allo alo waaw yaa ngi dégg. yaa ngi dégg waa. kooku. ça va la maam jaara maam Diarra déwénati. baal leen ñu àq baal nañ leen. baal nañ la nga baal ñu nu ngeen def ak tabaski bi maam Diarra. tabaski gi passé nañ ko ci jaamu ak salaam neex na torop. macha allah yaa ngi wootee fan. maa ngi ba Malika. Ah, yaa ngi wootee Malika. yow duma la duma la du ma la téye lu yàgg ci ligne bi dama lay teel a libéré jox la ndéwénal bu duun. lay wax nii. maa la wax li loolu neex na de. bu dee yaa ngi ak sa téléphone télévision Futur Média may na la euh, ndéwénal bu toll ci deux cent mille. ah loolu neex na Pape Cheikh tamit. yaa ko moom. ah merci beaucoup. dañu la koy dañu la koy yónnee directement ci sa euh, téléphone portable balaa ngay raccroché. ah yal na yàlla yokk xéewal bi. allahumma amiin allahumma amiin moom. merci mu ngoog jërëjëf et bonne soirée. ok nuyul ñu waa euh, kër ga yëpp bu amaatee beneen téléspectateur. ñu jël ko euh, jox leen ci euh, ndéwénal yi ay ndéwénal yu fort laay joxe tey 200000 laa maye léegi. Euh, mën naa ci tëggat yeneen i enveloppe euh, fii ba keroog ñuy jeexal euh, soirée bi ci <clears throat> télévision Futurs média ak Assane Ndiaye ak ngéwél gi ma may leen quelques minutes le temps ngeen composé benn ci numéro de téléphone yi man maa ngi leen di jël en direct am na itam ma fàttaliwaat leen ko équipe yu nekk ci ginnaaw ñu mobiliser leen tey spécial soirée tabaski pour di leen jox seen i ndéwénal def naa ndéwénal bi mënoon nañoo yam rek ci Assane Ndiaye woyal leen mm. ndax teraanga weesu wut loolu Euh, dañ cee teg ay enveloppe yoo xamante ni mën na leen a bégal ak fu ngeen mënti nekk euh, donc bu amaatee keneen euh, ñu jël ko léegi nii laataa ñuy li waxtaan week Assane ñu ngi woon ci point bu am solo ah. mooy wi nga xamante ni daanaka mooy liimaayam hmm. di woy woo xamee ni tax na ma ñu la léegi hmm. mënatoo def dara waaw sans coon tout à fait parce que parce que tamit mooy li may wax rek hmm. xam nga boo nekkee xale booy màgg dangay am lool te moom Euh, euh, dafa nekkoon sama idole. mais moom it daf la faawoon. waaw parce que cofeel la woon. waaw cofeel la gu mu amoon ci man. Uh-huh. moom ndeysaan bu daan bu lekk sax saan jot. Uh-huh. tant que man ñëw ma du ñu lekk. ndeysaan a ah, ana Assane Ndiaye lay mm-hmm. parce que temps boobu nag euh, loxo lañ daan lekk ndeysaan loxo. moom su ma su ma masaan tibb dafay kontaan <laughs> parce que parce mu daaw ma daaw ma tibb bu ndaw. dafay <laughs> bu militaire. voilà tibb soldat. <laughs> donc te bien que man woy naa siiw mais moom siiw bi mu woy man laa gën a yëg que man li ma woy moom laa gën a sentir lu tax euh, je sais pas yëg-yëg la ah. parce que xam nga man pratiquement yàlla dimbil na ma ci lenn mhm. moom euh, lu mu woy mhm. su ma ko bëggee woy ni mu ko woyee mhm. dinaa ko woyee ni mu ko woyee bañ cee yokk bañ cee wàññi ah. mais aussi nag su ma neexee ah. ma woy ko ni mu ko woyee ah. mais yokk ci wala mu wàññi ci Mbadou loolu moo tax euh, am na loo xamante ni tout le temps dañ la koy fàttali. waaw muy ci archive yi. bi mu doon wax nii moom bis bu demee ba euh, euh, lem ay koogam. waaw des ko waxee a Assane Ndiaye mooy doon ñu coon de. est-ce que loolu itam du ñëwaat du ñëwaat tout le temps ci sa. waaw parce que loolu fekk souvent ci say interview. baat boobu wala image yooyu dafay ñëwaat. parce que loolu Pape Cheikh xam nga man mos bi njëkk bi ma njëkk a woy ci àddina. Mhm. maanaam mu figuré ci. kaset. Mm-hmm. parce que boobu temps kaset la. waaw kaset la Talla Ndiaye. Euh, mu ngi nekkoon ci benn kasetam euh, bu tuddoon papa. ma mm-hmm. woyoon ci ñaan gi. Mm-hmm. ñaan gi moo nekkoon première woy bu ma mas woy mu génn. ci kaset ci kasetu coon la ci kaset waaj ci kasetu Ramadan la nekkoon. mais bi morceau boobu génnee maanaam ñu bari dañoo foogoon ne que maanaam coon mooy woy maanaam ñu bari xamuñu woon nekk xamuñu man maa woy wa merci beaucoup maanaam dañu tegoon nekk coon il a fallu que moom ci boppam ndeysaan ca mbaax gaag yëpp mhm. tu vois mu dima def loo ay playback ay télévision mhm. pour ñu xam ne que man maa woy woy boobu ah. donc kon bon loolu mu yàgg na ça veut dire que moom daf la daf daf daf dafa daan gis boppam ci Assane waaw loolu kañ moom kenn kenn kenn waxtu loolu même sax buñu masa bu masaan di répété mhm. yàlla mi ma tiim xam na ne. ay musiciens yi ko daan joué ñu ñu may dégg. Hmm. moom dafa daan toog fële man maay répété. nga way ay woyam. waaw maa ko daan woy wax dëgg hmm. yàlla. donc lu yàgg la loo xam ne. Hmm. bon dafa dafa dem ba nekk ci man. voilà après finalement est-ce que woy ay woyu coon yomb na. déedéet. bu ñu fàttalikoo daaw eh. daaw jéeg ci heure bi waaw eh, da nga ko génneel album waaw traditionnel traditionnel waaw woyaat ci woyam waaw eh, def ci def ci ay ay ay ay ay ay woy yoo xamante ni hmm. boo ko dégloo gëmm sax da ngay foog ni coonoy way tout à fait waaw parce que loolu maanaam ci man ci traditionnel laa jàngee woy ah. parce que évidemment boobu temps fekkagul nag may woy uh-huh. mais maa ngi doon déglu maa ngi doon jàng mais après nag euh, bi at yi dem nag. Mhm. ma commencé nag di dugg nag ndànk-ndànk cooy yi. Mhm. maanaam euh, dama cee namp. Mhm. ñu toqantal ma ci. <laughs> nga màgg ci <laughs> <laughs> c'est ça ba pare tamit moom ndeysaan mu <coughs> couvé ma ci. maanaam euh, musuma way ba mu ma ne neex na wala baax na. lu tax toujours tu peux parce que dafa exigeant. waaw exigeant trop nag waaw. te dégg naa exigence boobu moo nekk ci yow. léeg-léeg ma woy ba pare mu ne ma li nga woy lépp nga mbal tubaab. dara baaxu ci dara <laughs> wala mu ñëw ne ma yow xanaa déglu woo. Uh-huh. ndeysaan macha allah. Hmm. Maria Sène yàlla na ko yàlla xalaal jënd. waaye daal. Uh-huh. xam naa ne moom ah ku mu jàngal moom. Hmm. boo boo taree moom. Mhm. ah dinañ xam ne ki la jàngal mën na. <laughs> bi nga album boobu di ko ci euh, rendre hommage. Mhm. après nag toogaat nga diir. waaw euh, boo xamante ni. Mhm. Euh, génnewuloo. waaw ba affaire Covid. Covid voilà c'est uh-huh. moo fi moo fi doxoon ak tout parce que man au fait deux mille euh, décembre deux mille vingt. Mm-hmm. non de décembre deux mille dix neuf. laa génne ci nga génne woon. Ah, album bi album bi euh, mu Love naa la. Uh-huh. après ci laa voyagé. Uh-huh. dem tournée européenne. Mm-hmm. bi ma ñibbisee euh, février deux mille vingt. Mm-hmm. ñu def suñu grand théâtre ba. waaw ci la ñëwee woon moom. loolu amatul. wallaay ndeysaan <laughs> <laughs> voilà donc à part loolu. Mhm. loolu laa fa génne ak album cofeel bi. album cofeel je pense que dinañu waxtaan ci cofeel léegi nii parce que euh, euh, titre album bi rek. Mhm. dafa dafa dafa dafa neex. waaw cofeel moom. waaw bon moom sama sama doom ju tudd madame Gaye Clara. Mhm. maanaam moom moo porté. Euh, projet bi projet bi. moom moo def lépp. wax dëgg yàlla macha allah. Mhm. ma di ko ci gërëm bu baax di ko sant moom sama doom la. <laughs> man ak moom dañoo yàgg. parce que projet bi. Mhm. Pap Papis Niang moo ma moo ma wax ne ma. grand dama bëgg ñu benn album. mais nañ ko tas. maanaam jox Papis Konaté jox Dembel Diop. Uh-huh. jox Papis Ndiaye. Uh-huh. jox Jules Diop. Uh-huh. jox ibu mbay maanaam maam ak ak ak ngewel gi. ndaanaan yaa ngi noonu. voilà donc ñëpp nag. ñëpp ci joué nag. ñu euh, def lépp parce que Papis Konaté moo nekkoon euh, le réalisateur. après nag ñu def lépp studio Papis Konaté. donc loolu moo waral ba. affaire yi am diversité. ah maanaam da nga ko tasaare daal. dama ko tasaare ku nekk loxoom. voilà mhm. donc sama doom nag moom xam nga moom euh, ku ne xam na ko ci cinéma. Mhm. moom yàgg na def cinéma yàgg na def ay séries dugg ci ay séries. Mhm. mais musul dugg ci côté musique bi. côté musique bi mais bii nag moom mën naa ko ne doom kaay. ñu mën ko kaay jàppal sa papa fii. <laughs> moo tax it jàpp donc waaw waaw walaay. que bi cofeel di bëgg a génn. Euh, bëri na bruit. bari na bruit bari na coow waaw. mais ñu ngi doon xaar itam événement bi. waaw bi lay parce que. Euh, yàlla dafa dogal album bi génn wax dëgg yàlla mm-hmm. sénégalais yi jël ko te dafa génnandoo ak euh, vidéo Mass Ndiaye mm-hmm. nit ñi bëgg Mass Ndiaye wallaahi donc ñu jëm nag ci le 17 juin mm-hmm. pour suñu grande nuit bi nga xam ne moom la ñoo def King Fat malheureusement lii xew Sénégal xew wallaahi ba ñu reporté ko mais incha allah rabbi uh-huh. eh, dinañ ko def uh-huh. parce que moom sax nee na ma papa uh-huh. dinañ ko def incha allah t'inquiète pas bu soobee yàlla damay delluwaat ci ginnaaw euh, par rapport ak sa public tëgg Mhm. ci ay at ba tey. waaw da ngay gis ni ñi la doon topp. ba léegi dañu lay topp. fidélité boobu nga xamante ni euh, Assane Ndiaye am na ko. ak mhm. euh, public am. Mhm. Euh, na sax secret bi. am na sax ñoo xam ne dañ ma daan topp léegi ñu ngi ànd ak seen i doom di ñëw <laughs> nga Pape Cheikh. mais fidélité boobu noonu Assane am. Eh. ak ak ak ak ay soppeem. waaw dara nag yaakaar naa ne bon xam nga man nag damaa am benn esprit d'ouverture boo xam ne damay préféré xam nga samay nit ak samay. fans dama leen di jege maanaam du ma leen sori dinaa leen jege dinaa saafoonte ak ñoom bañ naa ko ba sax soirée sax damay teel a ñëw toog sama oto nit ñi génn bu ku ñëw ma nuyu la fekkee naa ko waaw nga dugg ci waa donc saafoonte loolu tamit mhm. daf ciy baax mais bu soirée jeexee da ngay taxaw ci biti di joxe paas nit ñi di ñibbi <laughs> non non non loolu loolu moom du dara loolu dañuy wax rek <laughs> loolu yàgg nga ci <laughs> waaw loolu tamit loolu tamit daf ci baax loolu loolu jikko la mhm. am nga jikko moom ak boroom pax rek wallaahi man mënuma mukk ci àddina ma yëg ci kaw seen ñu may ma xaalis après ma génn dem non non mhm. je préfère taxaw kañ mhm. ku ci sa wërsëg nekk ma jox la après nga dem voilà am na itam beneen laaj boo xamante ni fu ñu tasee ma laaj la ko mooy te loolu ñëpp la koy laaj mooy euh, lu tax Assane latewul euh, maanaam lañ lay gis <laughs> waaw waaw euh, pourtant nag. saa yoo génnee rek farataa tax nga génn. waaw dinaay génn de waaye daal. Uh-huh. li ëpp ci sama génn moom. Mm-hmm. mooy yeewu sept heures du matin dem sport. mais génn ëpp sama génn. génn ci public bi laay wax sax. ah waaw loolu de moom bariwul de. waaw xanaa lu mel ni lii. Mm-hmm. wala ma génne album. Ah. wala ma war a def concert. Ah. wala ma war nangam sangam. Ah. mais daal. Euh, gis ma bëccëg sax yombul estomac. mais kan moo la tàggat ci loolu parce que loolu xewatul daanaka léegi euh, nit ñi lu ñor ñu wax. lu ñorul ñu wax. ku nekkee génn ku nekkay wax mais toujours. waaw même Assane bi. xam nga barki démb démb ak tey. waaw toujours même Assane boobu la ñu am quoi. waaw mais xam nga parce que tout simplement xam nga jamono ji. Mhm. dafa xaw a tëradi loolu Pape. Mhm. te gis nga boo gàttul tànk tuuti. Mhm. xaw a gàtt làmmiñ. accident mën naa ñëw. te léeg-léeg day am accident yoo xam ne pour réparer ko day jafe. Mhm. donc je préfère nag toog sama coin. Mhm. maanaam dund li may dund. Mhm. Euh, man damay naa toog deux jours ma génn sama kër parfois. yàlla xam na ko. wala boog su ma toogee ba guddi ma génn doxantu après. mais tout simplement. pas que Assane Ndiaye dafa ragal camé caméra wala du dem ci. non Assane euh, latewul. loolu ñëpp wax Assane Ndiaye latewul tout simplement c'est parce que man maa obtenu. bu fekkee ne que yow da bëgg boo génnee wala buñ la invité fenn wala booy def dara. Mhm. ku waroon a dem sangu ji sax day bëgg a toog xaar. parce que du bëgg mu rëcc ko dafa naan ah waaye mais kii dañ rarement laa koy dégg. Mhm. wala rarement laa koy gis kon xaar euh, damaa war dem caaro yi mhm. waaye xaar ma bàyyi ba mu jàll. ma doog dem caaro yi. évidemment que nag moom. internet bi tax na ba loo bëgg gis-gis ko. ndax lu amoon santaar <laughs> sax boo ko bëgg gis-gis ko. mais mhm. ba tey daal loolu daal mooy sama euh, maanaam jikko bi nga xam ne moom laa am te moom laa masa am na. Uh-huh. waaw mais nag su ma waree génn tamit nag damay génn. coon moo la ci yar wala. waaw lépp ci yar bi la rek. Uh-huh. waaw lépp ci yar bi la. Uh-huh. ak euh, sama yaay ju baax ji yaay na koy ngom. wala formation militaire bi la. loolu boobu tamit daf ci yokk Pape man damay wax ne tout bon citoyen doit faire le service militaire. dëgg la man loolu laa gëm. dëgg la man li ma gëm mooy gis nga service militaire. ko euh, ku nekk ka doon def. Mhm. jikko yu bari dinañ defaru mhm. parce que quartier boo fa demee dinañ dindi ci yow lu bari. Mhm. ba pare tamit def ci lu bari. voilà di a muñ. te aussi fëkk du la yóbbu. voilà te loolu defe naa feeñ na ci yow. Ah, maa ngi góorgóorlu <laughs> maa ngi góorgóorlu. <laughs> bu leen fàtte maa ngi leen di xaar ah. pour euh, seen ay euh, seen ay ndéwénal. Ah. Euh, ci numéro de téléphone yi affiché wu ci suufu écran bi. Mm. bu amaatee ay téléspectateurs ñu jël leen léegi nii. Mm. mais Assane. waaw defe na ak yow c'est plus de vingt ans de carrière. oui vingt trois ans. plus de mille deux mille ba. ba deux loolu carrière ngéwél gi la. waaw ça n'a ak durée bi ma def Ramadane. ëpp na ëpp na ëpp na vingt ans. ëpp na ko ëpp vingt trois ans. voilà donc kon boo ko boolee dafay ëpp loolu. Ah. mais bu fekkee ne que nag carrière solo bi la. Ah. moom c' est euh, deux mille. d' est ce que am na uute entre euh, euh, musique démb. Hmm. jamono yi passé. Hmm. ak jamono yi ñu nekk nii. Hmm, mais musicalement parlant ak. mode de consommation yeeg ñoom seen. forcement parce que xam nga bu njëkk cassette moo amoon. Euh, cassette moom mënoon ngaa xam. Mhm. ñaata exemplaire nga jaay. te nit ñi nit ñi dañ daan xaar sa cassette. waaw embouteillage daan na war a génn vendredi. embouteillage mooy am am ñu fanaani jeudi. voilà maanaam Sandaga pour mën a pour mën a njëkk am cassette Assane Ndiaye. man daal xam naane su ma daan mës a génnee album. Mhm. Euh, ñu nekk ci région yëpp dañuy fanaan si. ñoo fanaan si Dakar. dañuy fanaan si uniquement pour am cassette. waaw Sandaga fajar. ko defee. Mm-hmm. Talla Diagne moom tamit ma waale. Mm-hmm. de passage parce que moom tamit jeune ci sama carrière. Mm-hmm. parce que defal na ma ay cassette yu bari. Ah, léegi nag Talla bu parce que Talla dix heures lay wax lay génne. waaw mais mais da koy téye tuuti daf koy téye <laughs> daf koy téye indi fa benn genre embouteillage. xam nga après ba gars yi ñëw nag après mu doog ko génne ko macha allah waaw. parce que période yooyu noonu tamit defe naa euh, bu doon euh, dañuy joxe ay disque d'or sax kon am nga ci ba doyal. album album Ngistel Ngistel. Mhm. Euh, ay centaine de mille. macha allah yàlla yàlla xam na ko. te boobu daan nañu mën a compter. parce que man dama daan toog ba ci yàgg taala woo ma foo nekk ma ne ko maa ngi sama kër mu ne ma kaay. Mhm. ma ñëw mu yëkkati xaalis bari na ma am ma ne ko lii nag mu ne ma jëlal. Uh-huh. mais est-ce la gënoon neex kon. que ah si ah, si ah si bon parce que li nga mënoon jaay démb. Mhm. mën na ko jaay tey mën na ko jaay tey démb. affaire yi léegi dafa jaxasoo. affaire léegi dafa jaxasoo internet bi yàq na yëf hmm. liggéey bi léegi pratiquement lu bari loo xam ne doomu aadama moo ko daan def léegi machine moo koy def hmm. donc am na ñoo xam ne dañu dañu euh, opté pour côté boobu facilité bi voilà am hmm. tamit ñoo xam ne nag ñoom liggéey mooy gënal donc te ci te te yéen ci seen période la gënoon na metti entre dugg studio bindu way répétition c'est-à-dire détail par détail daaw leen ko fàtte te bu njëkkaan n'importe qui daawul way xam nga léegi ko jog way mais yéen da ngeen daan da daan. ma wax la bi gën a dee da ngeen daan sonn. ma wax la bi gën a dee. maquette sax pour ngeen amaan ko à l'époque. pour dafa daan metti. ma wax la bi gën a dee pour nga defoon benn morceau. waaw da nga koy woy début. ba nga bu ci benn yàqoo. da nga koy reprendre at. ndax ah, façon enregistrement bi woon à bi woon à l'époque ak léegi bokkul. léegi nag moom bu la neexee moom ñu jël benn musique tegal la. Mhm. di jël baat par baat. di dagg par dagg. dama ne. Mhm. yaa ma ne. Mhm. nee naa la. parce que léegi même boo mënul woy machine yi léegi mën na neexal mën na neexal ba mooy mooy li ma la wax ne la léegi mhm. li nga xam ne doomu aadama bi moo ko daan def léegi machine yee koy def mhm. waaw mais nag terewul nag mhm. ah, woykat yaa ngi te xale yi jàmbaar lañu nag wax dëgg ay jàmbaar lañu ay jàmbaar lañu macha allah c'est vrai bi léegi kenn ku ci nekk yaa ngi ah, góorgóorlu jàmbaar lañu que tamit nag xam euh, nga melomaan yi tamit euh, xam nañu ku mën a woy ak ku mënul woy donc c'est très important mais loo ci mënti dégg tamit am métier baax na am métier mooy nga nga jàng ko mu ay way la ñuy waxtaane léegi xam naa ni yàkkamti ngeen Assane delluwaat ci seen euh, ci seen bi xam nga wax nañ ci siiw euh, nga teg ci euh, bég ci yow bég ci yow it ba tey sàppa tojuñu ko ba tey cofeel mm-hmm. bég ci yow man dama dof ci yow mm-hmm. seey ci yow amuma kudul yow mm-hmm. jantub njolloor nga mënuma laa xool ci bët bët ak bët nga di ma maas ma ko yëg yooyu la rek woyu bëggeel la daal li may yëg xajul ci xol. Uh-huh. moo rogalaat. Uh-huh. ci sama yaram bi cër bu ne di ma la laaj. Oh, waxin la rek. <laughs> mais ku lay bindal Assane. Ah, album bi nag. Uh-huh. ñi ci bind dañoo bari. Ah. tey maa ngi ci remercier ku mel ni grand Birame Ndek Ndiaye. Birame ndekk Ndiaye. waaw kooku waaw. kooku c'est le meilleur en fait. ak euh, sama benn euh, booy bu tudd Njawar. Mhm. moom tamit sama rakk la. Mhm. sama xarit la. Mhm. même Papis Konaté mi sax bokk na ci bind yi. Jil Diop bokk na ci. maanaam album bi daal ay anciens combattants ñëpp daal dañ cee bokk quoi. ñooñu dañoo fekkee guerre yëpp. voilà voilà donc bu ñu la bindalee forcément sa way ngi noonu maanaam album bi maanaam damaa woy loo xam ne du Assane Ndiaye. Mm. maanaam kenn xamewul Assane Ndiaye lii. mais ñoom ñoo ma ko imposé ma fekk leen. melan mooy différence bi c'est-à-dire euh, différence su album Cofeel. ak sa album yi passé. différence bi mooy. waaw maanaam euh, woyuma ci wala boog benn ci benn morceau peut-être laay woy registre boo xam ne man non benn morceau laa laa xam ne man maa dugal thème. Ah. mais à part loolu. Ah. li ci des yëpp dañ naan nii ngay woyee. ah maanaam da nga fii nga koy teg. da joxe. voilà maanaam damaa bàyyi décider leen. waaw ñoom ñoo jël ñoom ñoo arrangé ñoom ñoo def. léegi nag kenn ku ci nekk nag da ngay ñëw ak sa style. Mhm. léegi nag yow style ba nga yor. Mhm. Euh, damay obligé adapté. adapté wu Ah. ci ci ci style boobu. waaw donc loolu talent moo koy may. voilà moo koy may xam-xam moo koy may. donc savoir faire moo koy may. voilà bi ma ci gën a mm, sonn nag. Mhm. mooy morceau bi ma sànq mooy fi jamono toll. ak li ñu dundee boobu Jules Diop moo ko def. waaw c'est vrai que woy woy la bu méngoog jamono. waaw xaw a daw yaram. voilà mais boo ko dégloo dafa mel ni lu lay yéen te xaaral ba nga déglu ko. waaw woy boobu moom amoon naa ci tuuti jafe-jafe parce que envolé yi dafa koyoon. Ah. dafa sori à part loolu. bi Papis Ndiaye def aussi. Ah. boobu moom man la aussi. Ah. parce que loolu loolu loolu. ah way dafa métti parce que yéen da ngeen di expliquer yi ay envolé mm-hmm. ay octave ak ay xawma lan. way dafa métti apparemment waaw xam nga euh, Papis Konaté daf ma koy wax parfois. Mm-hmm. su ma bu ñu nekkee studio. Mm-hmm. su may dugal fois may jox benn ton. ne la yéega ma ne ko mënuma ko mu ne ma man nga ko. di ko ah. def wala soo ko mënul def. ñu yemale fi lépp <laughs> xam nga <laughs> donc da ngay woy ba doo comprendre mais <laughs> quand sant yàlla parce que comme yàlla bàyyi na fi baat bi yàlla ko fi yàlla gën a bàyyi mm-hmm. ak yeneen baat yëpp mm-hmm. mbégte lay doon rek ak contentement. est-ce que Assane dafa am a à propos de baat parce que nit. <laughs> Euh, euh, macha allah. Hmm. am na baatam. mu neex. dem ba mu yàgg peut-être. Euh, baat yi am ay coppite. mais yaa ngi ñuy bégal toujours ak même baat bi duma la catu. mais ay question la yu am solo bant yi waaw déet question la am solo yoo xam ne ni mën na bégal. nit ñi mën nañ ci xam. mën nañ ci jaaree xam. lan mooy secret peut-être Assane Ndiaye pour que muy maintenir toujours même kabu baat baatam depuis longtemps. léegi dinaa la wax nag tey secret boo xam ne mosuma ko wax kenn ayca pour sama baat <laughs> xam nga leen moo tax ma téye sama voix bi ba léegi. Mhm. yàlla suñu borom. tey. jeex na loolu secret bi. moom kese. moom kese yàlla rek. moo la ko may donc nga wóolu ko waaw te nag ma wax la benn secret. Mhm. baat kenn mënu ko defar. ah bon déedéet. mais bu kaa ñu naan ay da ngay naan. naan nen waaw da ngay dem eh, yokku ci géej gi déedéet. non ah mais yooyu mën na nekk entraînement wu baat. Euh, non non gis nga baat. Uh-huh. yàlla moo la koy jox. Ah. technique yow yaa koy wutal sa bopp. ah d'accord. xam nga donc ay way du baat bu neex rek kon. déedéet non non non. Hmm. sa baat mën na neex. Uh-huh. te doo am technique. Uh-huh. te technique aussi pour nga am ko il faut nga am expérience. Ah. te expérience aussi benn fan du ñaari fan nag. dëgg il faut nga topp ci. nit koo xam ne man na mhm. nga dik nga toog di ko xool nga mbapat di ko déglu bi mhm. jéem di woy la muy woy ba euh, nga dem ba nag amal euh, ko bopp voilà loolu la ba doon li ngay doon rek mu ngoog ñu euh, xoolaat fu téléspectateurs yi tollu Assane mhm, balaa nga ñuy bégalaat am na itam yeneen woy yoo xamante ni bëgg nañu ko jagleel téléspectateurs yi am na laaj bu am solo waaw boo xamante ni question la bu may daas fanaanal <laughs> sa diggante ak première dame ah tey doo dem. Ah. te waxoo ma ci. Ah bon waaw loolu. Euh, defe naa question la bu important euh, moo tax ah. sànq ba tey ma denc ko parce que gis nañu. Euh, Assane ak la waaru Assane ak ak waaw gis nañu Assane ak waykat yi. waaw gis nañu Assane ak kilifa yu bëri. voilà ndeysaan mais sa diggante ak Marième Faye Sall. ndeysaan première dame dafa relation bu particulière dañ koo xame ni la. ci enquête yi ma enquête. man leer na ma ni ku ko fonk nga Assane. lu tax. Pape Cheikh pourquoi ah, première dame. mais euh, xam nga nag xam nga nag xam nag yàlla xam ne nag. Uh-huh. xam nga nit koo xam ne. Uh-huh. danga nekk ci àddina. Uh-huh. di dund ci àddina. di def lu baax. nit ñi feebar ngay faj. nit ñi sonn ngay dimbali. nit ñi jaaxle nga leen di jàppale. waa mais lu kooku boo ko boo ko santul boo ko gërëmul. nooy def. dëgg donc loolu rek nga mën de. parce que nit ku nekk am nga droit par exemple nit koo xam ne yaa ngi gis nga ne que moom euh, mu ngi jàpp ci lépp loo xam ne mooy jafe-jafe askan wi lu jëm ci wàllu social waaw mooy loolu ah. euh, ak fondation bi ah. euh, servir le Sénégal ah. donc kooku à chaque fois dañ ko war a wax jaajëf du man rek maanaam tey képp képp koo koo xam ne rek euh, yaa ngi xool tey wax dëgg mhm. tey doxal dëgg tamit war ngay di ko mën a sant di ko mën a gërëm parce que mhm. waaw góor dafay dolli ngóor rek mhm. loolu dara mais a part loolu moom euh, yàlla xam na ne mës ñu ñu sax gisante waaw ah. ah, non non non franchement pas pour dire vrai bi ma déggee li nga ko woyal waaw je di suis dit ah Assane <laughs> kon xaritu première dame la waaw woy ko nag wax dëgg yàlla te Euh, aussi avant ma koy way dama woo sama doom madam Gaye Clara toujours mm-hmm. maa ko demandé mm-hmm. ne ko damaa bëgg def nangam mu ne ma ah oui papa Ah. loolu dafay neex daf may neex ah. donc moo tax surtout euh, ci axe bi nga ko ci bi nga ko teg waaw euh, yërmande beeg waaw social beeg waaw solidarité bi surtout loolu euh, ku la xam xam ci xam la ci boo mm. gisee ab jàmbaar bi def lu baax waaw da koy woy mais tout à fait koy gërëm parce que waaw góor day yokk ngóoraw itam parce que parce que gis nga nit ki mm-hmm. waaw góoru kële mm-hmm. du wàññi sama waaw góor dara déedéet déedéet mbaaxu kële du wàññi sama mbaax dara déedéet mais bu fekkee nekk première dame mu ngi def sociale bu am solo ci Sénégal gii. même man su ma ko waxul. mais nit ñaa ngi koy wax. dëgg la de kon nag am naa droit te kenn du ko jeex. waaw kon nag am naa droit wax ko donc kon comme mu ngi jàppale jaami <laughs> jaami yàlla yi. donc jar naa gërëm. wallaay jar naa gërëm merci beaucoup encore madame la première dame. kon woy bi nga jagleel première dame di nga ñu ko woyal. Ah, mais balaa nga ko balaa nga ñu koy woyal. dafa woy woo xamante ni jongama la waaw kooku nag sama doom tamit laa ci woy waaw madame Gaye bu ngoog waaw ak kon ñu bàyyi la nga dem bismillah ci ci scène bi euh, en attendant ñu xool fu téléspectateurs yi toll le temps Assane dem euh, ci euh, scène bi pour bégal ñu ak jongama mu ngi ko woy Clara daañu déglu itam li mu woy première dame voilà yaayu Amadou première dame borom servir le Sénégal ñu ngi koy ndokkeel li ko assan woyal nag ku ko déglu bég ci ngay xamee ni def lu baax rek am solo parce que ko xamul waaye di gis mbaax goo xamante ni moo ngi koy def euh, ba mu jaral la ab woy woo xamante ni daanaka hymne la pour képp kuy jigéentee def lu baax loolu di ngeen ko déglu bu ca kanamee tuuti et puis yéen ci biir kër yi euh, ñu bëri ñu considéré seen bopp comme ay première dame euh, bu ngeen dégloo woy wi Assane woy première dame di ngeen ci kontaan donc le temps mu ñuy bégal ñu xoolaat fu téléspectateurs yi toll xam naa ni ci biir waxtaan wi yéen a ngi woote ci ginnaaw et que sunu équipe yi ñu ngi joxe ay ndéwénal ay enveloppe yu duun joxe gum naa nag benn deux cent mille bu amaatee téléspectateur léegi nii ngeen passe ma ko ci ginnaaw euh, bu ko defee euh, ñu euh, jox leen seen i ndewenal tey ci guddi tabaski ci télévision Futur Média alo allo kooku. man la Aïssatou. Aïssatou déwénati. déwénati Pape nu ngeen def ak tabaski bi. ah tabaski bi moom macha allah neex na trop. wallaay tabaski bu xaw a jaxasoo sax. billaay dëgg la moom. tabaski bu tàng lool sax. billaay tey dafa tàng trop sax mais mm. alhamdulilah. mbaa xar bi mbëkkul wala mbëkkul kenn seen kër. ah non non. <laughs> fan ngay fan ngay woote maa ngi lay wootee Wakaam. fan ci Wakaam nga dëkke Wakaam maa ngi toglu. yaa ngi toglu. waaw jeex na xam naa ne fi mu ne li nga bëgg mooy toog jàkkaarloog sa télé Assane Ndiaye di la woyal. di nag dama lay teel a libéré jox la sa ndéwénal. waaw. voilà alors télévision Futur Média jox na la ndéwénal bu toll ci cent cinquante mille. merci beaucoup. yaa moom. mooy sa ndewenal. billaay yàlla leen yàlla fay. allahumma amiin allahumma amiin. allahumma amiin sénégalais yi. allahumma amiin. mu ngoog ndewenal bi yaa ko moom bul quitté léegi ñu yónnee la ko ci sa téléphone portable. bu ko defee euh, ku euh, dugg rek ñu defal ko comme ni ma la defal léegi. d'accord joxe cent cinquante mille deux cent mille mën naa joxe ndewenalu téeméeri junni léegi nii ci guddi bu sama yaram tàngee. Euh, ci euh, euh, émission bi tey donc mm. cent cinquante mille mooy li ñu la yónnee léegi nii ci sa téléphone portable dégg nga. merci beaucoup. jërëjëf merci d'avoir rappelé ñu xoolaat ki ci topp 88 628 22 22 wala 88 628 20 20 ak it yeneen numéro téléphone yi nga xamante ne ñu ngi commencé 88 676 05 05. encore une fois ñu ngi leen di euh, déwénatil yéen fidèles téléspectateurs yu télévision Futur Média donc seeni i euh, ci euh, télé bi da ngeen koy jot léegi am na sunu xarit yoo xamante ne ñu ngi commenté ci réseaux sociaux yi naan ñoom it ci lañu bokk voilà diggante Facebook Twitter rek Instagram ba TikTok xam naa damay bàyyi équipe yu Magui Coulibaly ci ndimbalu Pape Jean mu xoolal ñu internet ñu xool ñan ak ñan la ñuy jox itam seen i ndéwénal bu ko defee ci ginnaaw. Euh, bu dee euh, mën ngeen euh, jëlaat yeneen i téléspectateurs soit ngeen paas ma leen wala ngeen jël leen directement puisque je rappelle que tey ci guddi ngeen jot ñu en direct ak ngeen ñàkk ñoo jot bu ngeen xasee ba composé benn ci numéro de téléphone yi di ngeen bokk ci ñi nga xamee ni ren ñoo leen di jox seen i ndéwénal ñu bàyyiwaat leen ak Assane Ndiaye ak ngéwél gi defe naa lii rek ndéwénal la mu bégal ñu ak jongama d'accord ma nag daanaka hymne lay doon donc bàyyi leen ko xel comme ça ñu bégal leen ci tey ay ca Assane ñing ma bàyyi a ngir man nga gumba tabulu ngi naan bàyyi kii du la nawle xanaa xanaa lii mooy wane ni ñàkk dem soirée Assane Ndiaye wóorul man tey sama yaram neexul waaye yaa ngi may yëngal xam naa ni yaa ngi yëngal téléspectateurs yi léegi nag ku daawul dem soirée Assane Ndiaye lii ngeen mos nii defe naa euh, exemple euh, pour ngeen dem di fekkee ay spectacle Assane Ndiaye am na ay projet yu bëri yoo xamante ni mu ngi ci euh, dinañ ci waxtaan ba kanamee tuuti mais defe naa tey ñu bëri bég nañu man bëriwul lu may def ay émission di ko dund comme nii ma ko dund nii tey dafa mel ni man ngay bégal te xam naa ni bëri naa ay morom euh, ay inconditionnel Assane Ndiaye yàgg ko bëgg depuis euh, ay années euh, donc tey bu ñu ko defee ndéwénal defe naa man maay njëkk a bénéficier wu wala bànneexu ci ndéwénalu télévision Futur Média bi tey donc assan yal na baat bi gën a wér. ngay continuer di ñu bégal yow ak ngéwél gi. di nga dellu si waat ci kanam tuuti mais dañ lay bàyyi nga continuer woyal ñu. Hmm. tout en rappelant aux téléspectateurs ni ku dugg ñu jox ko ndéwénalam voilà bi yaram bi xaw a xaw a xaw a naqari tuuti euh, Assane fexe na ba yëngal ba yëngal ma <laughs> léegi nag comme gën naa bég dama yokk sama loxo lu ma li ma doon mayee euh, dama koy yokk ci euh, numéro de téléphone yi donc gaaw leen ñu seddale ci 88 676

Euh, ñoom euh, euh, équipe yu service à valeur ajoutée bu télévision Futur Média ñu ngi ci ginnaaw ci ndimbalu Pape Samba Thiam ak équipe technique yi tey ñoom ñëpp dañu bàyyi seeni tabaski bàyyi seen i njaboot mobiliser wu pour bégal leen yéen téléspectateur donc bu amaatee ñuy woot ñu jël leen pendant que Assane di ñu bégal ci beneen morceau lii la guddi gi laaj tey ci télévision Futur Média Assane. Real Mix Premium Energy Drink, la différence en matière d'énergie naturelle. Une boisson qui allie la qualité et l'authenticité, des saveurs délicieuses, un goût sensationnel, le tout préparé avec soin à partir d'ingrédients naturels. Real Mix Premium Energy Drink, c'est un pas en avant vers une meilleure consommation. Enrichi en vitamines essentielles, Real Mix Premium Energy Drink prend soin de votre bien-être tout en vous donnant le coup de boost nécessaire pour rester en forme. forme. Optez pour une boisson énergisante, sans taurine, sans aspartame, mais avec un goût irrésistible. Real Mix Premium Energy Drink, c'est naturel. waaye 10 000 francs bi suba teel gii dama am sama ko pour baa ngi nii amul dara nga may jox ay francs. as ah, yow tamit wàccal nga wut wéccet yow tamit. yow as doxee nga naaj. xanaa xamoo mën ngaa yu safiri moo nekk say client coono wéccet wàcc la. tàllalal sa QR code rek lépp nice seen naqar dëdduna Payez juste en scannant. Téléchargez l'application MyFree sur les différents stores quel que soit votre opérateur. Free Money, des qui sa calpe Alexander Anton boobu nag mooy d'accorduma moom laa tuddee hymne bi te li ma laaj sànq laa lay laajaat ndax am na ñu fekkewul woon laaj bi dégg naa. <laughs> waaw lan moo am. ci sa diggante ak première dame. non non non non yàlla xam na ne mooy li ma la pap mooy mooy. laaj bi moom. pap sonal nga ko laaj ba émission bi jeex. waaw non toppee nga ma moroon toppee nga ma moroon mooy toj papis ñaanaan ko ndekete. Ah. ndekete Assane. Ah. xaritu première dame la. <laughs> ah mais daam ñëpp ay xaritam lañu. wallaay ñëpp ay xaritam lañu parce que mooy. Euh, yaay seex. Uh-huh. moom dafa uuf ñëpp. wallaay war a uuf ñëpp. wallaay uh-huh. c'est très normal donc uh-huh. mooy comme ni ma la expliqué léegi rek. Euh, waaw góor moom yàqul yàqul dara. te wax dëgg yàlla. man euh, wax dëgg yàlla mu ngi def ay teraanga macha allah. donc nit ñaa ngi donc. wax dëgg yàlla kuy def lu baax nag. wax ko ko aayul. Mhm. Mhm. sànq bi ñuy bi ñuy tàmbali yaa ngi wax ci Sénégal. waaw pays de la Teranga. waaw sa xarit bi nekk xaw ma ban dëkk. Euh, woo la ne la uwe euh, ana. ana Teranga ji. Euh, mais néanmoins mhm. ñu bëri. ñu ngi ci réew mi. di def lu baax. macha allah xam Teranga. waaw bari bari na lool ñu fi nekk. di def lu baax. te doo leen dégg nag ci dara. waaw waaw te te te coow du coow du waaw coow coow du jip mm-hmm. euh, maanaam bal du tàkk saga du mm-hmm. xeeñ mm-hmm. comme ni ko gars yi waxee donc bu fekkee ne que nag yàlla dogal na moom mi nga xam ne moom la yàlla def mu nekk première dame ba pare tamit di def lu baax nga xam ne dafa tas ba Euh, àddina bépp xam ko nag wax dëgg yàlla tamit wax ko ko mhm. yaakaar naa ne da yokk rek mhm. ngóor a wala waaye du moom rek am na ñeneen maam moom laa wax léegi ni ñeneen bari na ñoo xamante ni yàgg nañu bëgg Assane ba waaw euh, trop yàgg nañu dimbali Assane waaw yàgg nañu taxawu Assane bari na yàgg nañu na accompagner ku lim tey tey booy seen fay Assane tey booy ni booy lim da ngay juum da ngay juum comme par exemple Tofel mhm. euh, ki ma ko way noonu muy madame Gaye Clara moom sama diggante ak moom dafa yàgg xale bu baax la moom it oh. mbaaxam foo ko net weesu na ko dëgg la boroom këram waxi noppi mm-hmm. parce que moom bi ñuy xamante man moom dafa yàgg trop mm-hmm. trop boobu temps xaajagul woon sax bay am boroom kër wallaahi waaye te mu amoon mu am ci man mu amoon ci man cofeel goo xam ne dafa jéggi woon dayoo te da cee bëri ay morom de trop <laughs> waaw <laughs> ndox maal donc ay doomu Assane Ndiaye quoi ay nit yoo xamante ni voilà xale la ñu nekkoon sama doom màggandoo ak yow dem ba sëy ami doom voilà parce que sama sama beneen doom bu tudd Aïda Fall même maa ngi koy woy Aïda ci ci bi doomu ndeyu Aïda Fall mhm. sama doom ji mhm. parce que Aïda aussi mhm. sama doom la tey moom ginnaaw yàlla moom moo tax ma xamante ak ak Clara waaye Clara tamit jël ma def ma comme papaam donc euh, maanaam fu may nekk ñoom ñu fay ñëw tu vois ñu am kóllëre boo xam ne Euh, dafa yàgg trop Pape mhm. du tey donc euh, macha allah mu nekk mhm. loo xam ne daal mhm. euh, mbégte la woon pour man ma jël benn morceau jagleel ko ko jagleel ko ko sans nag bon parce que moom du tey rek laa ko ma sa way way naa ko wayete ko ah waaw mais bii moom dafa dafa spécial te nag daf ko mérité parce que c'est une brave femme jàmbaar la liggéeykat la macha allah nangu naa liggéey aussi uh-huh. waaw moom du femme au foyer. waaw non non non moom dafay. waaw waaw c'est une c'est une vraie battante. waaw mais mais lan nga bëri doom. Euh, da ngay jur ba jur ay nit yoo xamante ni noo leen jur. <laughs> waaw ndax euh, euh, da yàgg dégg ay doomi Assane Ndiaye. waaw diw doomu Assane Ndiaye ay mag ay ndaw ay nit yoo xamante ni sax mën naa ni bu ngeen maasiwul ñoo la mag. mais nga bëri ay doom. waaw loolu yëpp. loolu yëpp mu cofeel la. Mhm. donc dama yaakaar ne nag. ki ubbi baal bi mooy Papa Thion. waaw Papa Thion waaw parce que <laughs> àdduna bi foo tourné Papa Thion Papa Thion Papa Thion donc léegi. Euh. Ah, Papa Assane Ndiaye Papa Assane donc. sant yàlla rek. Mhm. Euh, euh, yàlla na yàgg nekk papa rek. amin amin <laughs> amin ah. amin euh, dañuy continuer ak téléspectateurs yi parce que tey. Mm. ndéwénali moom du jeex. Mm. ku dugg rek ñu jox ko enveloppe am ci 88 628 65 65. wala 88 628 22 22. ak 88 628 20 20. bu amaate ay téléspectateurs ñu jël leen. Mm. ñu gërëm nag bu baax. Euh, suñu partenaires yi nga xamante ni ñoom la ñuy ànd tout le temps mm. euh, ci teraanga yi ñu leen di defal à chaque fois événement am moo xam tabaski moo xam korité euh, moo xam weeru koor moo xam fin d'année en tout cas fune rek dañuy jéem di fa def dara ci télévision Futurs Médias ndax seen fidélité mm. donc ñu continuer ak yéen ci 88 676 06 06 ñu may leen ngeen euh, euh, composé benn ci numéro de téléphone yi laataa ñuy àggali waxtaan bi ak Assane Ndiaye laataa sax muy delluwaat ci seen bi. Euh, di ci béggal nag ay fansam. man dama cee am ay xarit dama cee am ay classe de guerre. ñoo doon daan baali Sahel. Mm-hmm. et pourtant ba léegi. Mm-hmm. say soirée. Mm-hmm. maanaam Assane ba woon. moo ne ba tey. ah fees neex. ah waaw ñu daal ñu daal chaque week-end. waaw yàlla dogale na ñoo ngi tëgg. macha allah suñuy suñuy nit a ngi ñëw Pape Cheikh. Mhm. te aussi wax dëgg yàlla ñu fidèle nag. mais constance boobu Assane. ndimbalal yàlla rek. du du njàmbaar de. Ah. ndimbalal yàlla la parce que nit ñaa ngi woy lu dàq li Assane Ndiaye di woy. Hmm. nit ñaa ngi def musique bu dàq musique bu Assane Ndiaye di def mais euh, yàlla sama borom. mooy def loolu boo ko waxee humilité moo tax. <laughs> non non walaay pourtant ah xam nga nag àddina moom xam nga comme ba léegi maa ngi jàng uh-huh. xam nga euh, parce que léeg-léeg ma yóotu benn morceau coon bu yàgg ah. déglu ko déglu modulation yi uh-huh. comme euh, premier morceau non non deuxième morceau bi ma woy uh-huh. bëgg ci yow bëgg ci yow waaw euh, boo demee ba ca fin ba am na benn harmonie bu ma fa def ci moom laa ko jëlee ci benn morceau boo xam ne mu ngi ko woyoon en 1975. 1975 yàgg na waaw fin ba. Uh-huh. moom laay jël def ci. donc yow ba léegi génnagoo école lu coon. déedéet ba léegi génnaguloo ci université boobu. moo tax ma ne. Uh-huh. wax na bàyyi fi. wax dëgg la. Ah? Uh-huh. maanaam li mu wax bàyyi fi. ku nekk mën nga cee tibb ba doyal. yàlla xam na ko. côté du jeex. fii ak ay ati ati at. mu du jeex. sànq yaa ngi wax samay nit. waaw parce que dama bëggul lim. parce que heure boo limee di nga desal. doo juum sax mais di nga desal. di nga desal effectivement mais man sama premier euh, sama premier euh, sponsor. Uh-huh. xam nga mooy kan. kan la Tamsir Soxna. waaw nit ku baax. waaw Tamsir Soxna moom laa woy morceau boobu noonu. Tamsir Soxna nit ku baax ku bëri valeur la. voilà bëgg ci yow uh-huh. moom Tamsir Soxna moom yàlla yàlla moo ñu boole. Uh-huh. moom ak ay soxnaam. Poupette ak Mariane. Euh, donc ñoom tamit ñu nekk ñu ma bëgg lool. mais ma am. sama benn rakk bu ñuy wax Bathima Samba Diop. Bathima Samba Diop waaw. Mhm. ak sama benn rakk bu ñuy wax Abou Guèye. Mhm. ci Tidiane Faye. Abou Guèye dafa baax maanaam euh, dañoo nekk ñoo xam ne. Mhm. dañoo xam ci man lépp. tey euh, boo leen laajoon fu Assane Ndiaye nekk ñu la. mu nga dinañ xam fan la voilà donc. ñooñu daal samay nit lañu ñu. parce que seetlu naa ni euh, bi ngay asan ba tey. yàgg di la déglu. yàgg di bég ci say way. Mm-hmm. Euh, bëri na ay nit yoo way. Mm-hmm. woyoo leen ndax teraanga. Euh, danga leen way ndax jikko ak mm-hmm. valeur yoo xamante ni da nga koy partagé ak ñoom. man xam naa ci ay nit yu bëri yoo xamante ni way nga leen ba tàyyi. ndax seen seen i jikko. non du la tàggu sax. du ma tàggu sax dama dafay nekk loo xam ne dama koy yëg. dama koy yëg rek. daal daal koy def. Mhm. mu naturel. Mhm. ak sama doom Mami Guèye li ma wax ma naan la. Mhm. ku lim da ngay def da ngay fàtte rek da ngay fàtte Tambacounda moom tamit. woy naa ko ci album bi. ci morceau bi waaw eh, eh, woy naa ko ci album bi ci album Jofel benn morceau waaw. waaw moom tamit euh, xale bu baax la waaw. xale bu euh, xale bu moom tamit euh, femme battante la. daal. lim daal wóorul daal ko Cheikh waaw kon jarul lim maasal nguur gi rek gërëm leen ñoom ñoom ñëpp voilà lan mooy sa relation ak euh, ay doom yi Thione euh, parce que question la toujours bu ñuy gis depuis sànq ñu commencé émission bi ci commentaire yi nga xamee ne ñu ngi koy gis euh, ci Facebook bi Wally Seck par exemple waaw lan mooy sa rapport ak moom Wally waaw laaj la boo xamante ni mënul ñàkk <laughs> waaw mais amul problème parce que de façon mhm. c'est la mhm. ne moom ndeysaan papam dafa sonn ci musique sénégalaise. Mm-hmm. Euh, def lu ne nag ci musique sénégalaise. Mm-hmm. maanaam il fallait yàlla fayee ko Waly. Mm-hmm. donc euh, Waly du pour Thione sekk rek. Waly du Waly du pour Diaga rek. Waly pour àdduna la. xale la mais patrimoine la. macha allah dëgg yàlla li may wax rek xam nga moom euh, ci way bu mooy way papaam ci album. ci maa ngi wax naan ndonoom kenn du ko ñeex kenn du ko jeex mhm. nee na fàng leer na parce que tey moom Wally mhm. il fait la fierté non seulement de la famille mhm. mais de tout le Sénégal te ba pare dama leen wax ne bon ñu bari peut-être xamuñu mais bu ñu xamoon dañ koy gis di ko ñaanal yàlla ku sañoon jur ko mais est-ce que ku sañoon mu bokk ci sa famille xam nga waaw waxuma la sax bokk ci sa famille uh-huh. mais moom dafa dundul lu bari li nit ñi di wax. macha allah wala ni nit ñi di jafe. Mhm. te nag ma wax la ci dara. Mhm. Euh, fit wee ëpp jëmm ji. Mhm. maanaam macha allah. Euh, fit wi dafa rëy. parce que gaynde ku jur kon moom tamit gaynde la. baa du li maar di di maama ma tax. mais loolu la xëy tamit euh, Pape Cheikh. Uh-huh. xam nga ne Thione Seck gaynde la. dëgg la donc kon bu juree doom gaynde rek lay ma a doon. la force waaw. doomi gaynde lu <laughs> mu noppi noppi uh-huh. gaynde la mm-hmm. donc li ma ci xam daal moom mooy nañ ko ñaanal ñu ñëpp mm-hmm. euh, parce que li muy def mm-hmm. bi lay mënu ko wallaahi mënu ko mett na même moom yàllaa ko bindee noonu moom dafa bëgg partage lu mu am joxe ko même sax buy lebi wala muy jëli feneen sax joxe ndeysaan daf koy def parce que moom loolu mooy waali waaw moom moom naturellement moom <laughs> noonu la ko yàlla bindee macha allah c'est vrai que mu ngi mu ngi bi bu baax. mais bu baax a baax ak kon nag foo xam ne. waaw niveau macha allah macha allah wax dëgg yàlla. Mhm. Euh, dañ naan moom moo yore flambeau bi. macha allah moom moo ko téye ñun ñun moom euh, ay papaam la ñu. Mhm. ñun presque ñun daanaka ñu ngi ci. yéen a ngi ci ginnaaw rek. waaw accompagner waaw uh-huh. mais wax dëgg yàlla. Mhm. Euh, puso bi dee réeragul. wallaahi waaw parce que moom mu ngi ko téye macha allah. moo ak. moom ak ay rakam. voilà sant ak ay rakam ku lim juum. waaw waaw euh, ñoom itam ñu ngi ci aar mi di góorgóorlu tey boo euh, toogee ba gis sa bopp yooyu yëpp. waaw loolu mbégte lay doon. Mhm. mbégte lay doon ba pare tamit xam nga tey to wax musique sénégalaise te te doo Faramareen. déedéet c'est pas possible. loolu yàlla doon na ko pare. waaw mais nag loolu yëpp maanaam fondement bi. Mhm. coon Ballago Seck la tudd. Mhm. maanaam tey. ay branches yi rek mooy ay Assane Ndiaye. benn mhm. Ousmane Keba. Mhm. Euh, après suñu doom yi ñëw. Mhm. Waly nag moom. ñëw nag moom. def affaire camlangal yeeg. ak ko ca kaw ak ko ca nga xam ne boo koy xool da ngay da ngay teen. yàlla na ko fi yàlla sama borom bàyyi Maria Sine may ko fan bu gudd. ak wér te mu eggalee ak sagoom. est-ce que am nga doom buy way. non man nag malheureusement enfin ou heureusement. parce que xam nga Pape Cheikh way dafa. dafa dafa dafa metti mhm. te xam naa ne tey euh, am na ñu bari ñoo xam ne ñu ngi def métier boo xam ne bëgguñu seen doom def ko mhm. parce que way coono bi ci nekk mhm. Pape Cheikh du du génn sax coon sec coono sec lu mu ci àddina dëgg bu fekkoon ne nit ku weex la mais am na lu ne mu ci mu ci musique te pourtant euh, sonn na ci composé na. Mhm. way na fu ne fent nay way ci avion. Mhm. mais man sax fent naa way ci biir avion. ah ouais ben oui avion bi daw ngay fent avion bi daw may fent. xanaa bi mu atterrir rek nga. <laughs> nga kër way bi non ma dem ma dem bind <laughs> donc euh. Euh, pour te mhm. donc te xoolal euh, pratiquement. damay wax nekk moom musique fayu ko non parce que li mu defal musique non moo ëpp moom la am loolu moo tax nag yàlla faye ko benn waali macha allah mu ñëw nag yëkkati affaire bi ci kaw mais yow nee nga heureusement amuloo do amuloo doom jiy woy heureusement parce que heureusement parce que mhm. euh, coono la dëgg la mett la mhm. di nga dégg lu ne mhm. nga gis lu ne ku la warul euh, xamal na la xamal dootoo am vie privée maanaam li ci nekk yëpp dafa bari mhm. donc te bu fekkee nekk nekku ci mhm. da ngay da sant yàlla mhm. mais heureusement aussi ba yàlla jox ma ay yeneen doom tamit yuy way waaw dégg nga de <laughs> dërëm bi génnul gaal gi dégg nga ma dégg naa la bu baax voilà donc ah. euh, ñoom tamit ñu ngi góor góorlu di béy seen waat bien que nag metti na waaye euh, damay wax ne rek euh, nit am na loo koy teg léeg war nga toog sax nga wéet mhm. nga tiit sa bopp mhm. waaw parce que doomu aadama dafa war a euh, ragal yàlla mhm. doomu dafa war di wax lu ko leer wala boo ko wóor te gis nga jaam bi nga xam ne yàlla ko bind teg ko bu bëggee noppali ko Pape fa ko yàlla teg nangul ko ko mhm. gis nga boo ko nanguwul mhm. mais dangay ngay sonn moom la sama waykat bi ne nangul ko ko par force la mais si par force la mhm. parce que boo ko nanguwul billaay wallaay da ngay sonn rek te ba pare nag heure boo yeewoo di gis nag yàlla yàlla di ko gën a yokk moom waaw yow ngay gën a dellu ginnaaw dëgg la wàllu ko fi jar dara yaru ko fi d'accord <laughs> voilà tey lan ngay rëccu waa euh, ci ci musique Assane mënul ñàkk euh, rëccu rëccu rëccu moom euh, yoo xam ni daal. bi uh-huh. euh, nga ko teel ci sa carrière rek léegi euh, euh, des fois da nga naan. Hmm. lii daal wax dëgg yàlla moom ma naqari ci musique. pratiquement presque daal amuma lenn loo xam ne mën naa ko réccu mm-hmm. parce que bu wax su ma xoolaatee man sama carrière. Mm-hmm. lépp ak cant laa koy def. Mm-hmm. parce que fa ma jógee. ak ba fii yaa ko wax sànq. constance boobu. yàlla sama borom dimbale ma ko. Ah. waaw kon man lu may wax lu sant. sant dëgg la de <laughs> li nga génne ci ay cassette bëri ah. euh, li nga génne ci ay clip bëri na. Euh, allah li nga def ci ay tournée bëri na. de tournée yooyu la. Hmm. Euh, bëri ay tournée yoo xamante ni nga koo jàpp. ba finalement nga annulé ko. waaye Assane ku ko xam. xam sa diggante ak sénégalais yi nekk ci diaspora bi. waaw tout à fait bi tukki jafee. Hmm. nga yàgg dem ak sa hmm. orchestre. di leen bégal. waaw waaye yenn saa yi ci jamono yi di nga gis waa France waa Amérique yi. Hmm. yenn saa yi ñu jàmbat. waaw fi Assane daan ñëwee ñëweetu fi. Eh, ni mu daan amalee ay tournées defatu ko. lan moo tax. parce que euh, tout simplement euh, maa ngi lay expliquer ne la que 2020. man laa jógee. France. Mhm. après bi ñu ñibbisee euh, ñu def euh, anniversaire bi. Mhm. mois de février mhm. mois de mars Covid dugg. Covid dugg waaw donc affaire yi nag compliqué. donc bi Covid jeexee. Mm, amoon na ay ay tournée. mais boobu temps pour am sax visa problème la. Mm. c'était compliqué. donc euh, ñu bàyyi ja jàppaat année ba ca topp. mais damaa jàpp ne rek dafa jotul. Mhm. parce que bu jotee dina ñëw te incha allah rabbi mhm. yàggul dara ñoo ngi ci. Mhm. ñoo ngi ñoo ci liggéey bi. bu soobee yàlla dinañ dem incha allah. parce que bëri na ay dëkk yoo xamante ni sénégalais yi dañu la fay namm. mais waaw parce que actuellement. logiquement yaa leen ko tàmbaloon boobu ba tey waaw logiquement sax logiquement li ma gën a jege mooy Angleterre déjà. incha allah incha allah rabi. Mhm. maa ngi maa ngi waajal boobu. Mhm. européenne aussi tamit ma maa ngi koy waajal. Mhm. ba Amérique tamit. incha allah rabi waaw. Euh, bu mais lépp nag su ma defee sama grande nuit bi. ci loolu laa bëggoon ñëw ci grande bi. waaw euh, ku la fekk grand théâtre dafa am bis ñu nekk di ci liggéey. man ak euh, équipe technique yi. ñu nekk ce soirée. waaw grand théâtre mais ñu ñëw rek. gis ni da nga tàmbali. waaw maanaam respecter heure bi. waaw respecter timing bi. def fi tubaab. waaw c'est-à-dire keroog. bi spectacle bi jeexee. ñun ñibbisi nañu fii biir TFM. ci réunion. yow rek lañ doon waxtaanee. professionnalisme bi ci Assane Ndiaye. manaam day tambali heure. Hmm. jeexal heure. Hmm. loolu exigence la bu ne ci yow. waaw parce que lu tax parce que xam nga bu fekkee ne que tey euh, Grand Théâtre mhm. dañ laay jox waxtu. Mhm. ne la waxtu sàngam. Mhm. lay jeex. Mhm. waaye yow yokkal nañ la ci trente minutes. Mhm. wax dëgg yàlla. Mhm. ba nga commencé way ba foofu. bu la doyul. Uh-huh. mais yokk ci sax benn quinze minutes waaye professionnalisme boobu. du du du du du artiste koy dund. waaw mais artiste gis naa ñuy way ba ñu tëj rido. waaw waaw loolu nag man wax dëgg yàlla rus naa loolu. teew loolu du grand théâtre kese c'est-à-dire même sa scène. waaw da gis. am na ñu bari sax ñoo xam ne yàlla baal xam naa ne que am na ci ñu ma xaw a mere. ci parce que temps waaw parce que temps bi laa doon calculer pour bañ maanaam affaire bi rëcc ma mhm. donc mais bon euh, j'espère que dinañ comprendre mhm. bu ñu bu ñu xolaatee mhm. te xam ne du du dara damay bëgg rek man euh, yàlla sedd na ne ku ma joxoon teel rendez-vous waaye doo ma jiitu wallaay dëgg la waaw man man noonu la ma yàlla bindee muy respect boo xamante ni da nga ko am ci sa digganteeg public bi sa diggante ak sénégalais yi sama digganteeg public bi sama digganteeg sénégalais yi ak tamit surtout soirée sax parfois samay musicien man maa leen fay jiitu. Mhm. waaw parce que man su ma waree def dara. Mhm. pour man dama jàpp ne tant que defuma ko ba ba pare rek. Mhm. dama dañ maa yéem. il faut ma def ko ba ba pare. ma xam ne que pare naa ma doog a jublu nag ci leneen. donc ba tey li ngay wax day méngóog li ñuy tàmbalee depuis sànq. waaw yar bi day ñëwaat. waaw formation militaire day ñëwaat. waaw maanaam ci lu waay ne. te àndut ak yar rek defe naa baaxul. Pape Cheikh mag sax dafa war a yaru. xale dafa war a yaru mm-hmm. mais mag sax moo war a gën a mën a yaru ba nga xam ne xale yi dinañu mm-hmm. jàng ci moom mm-hmm. ba nga xam ne xale yi dinañu roy ci moom parce que gis nga yar ak i teggin euh, way naa ko ci albantu aussi am na fu may waxee naan xale bu bëggee gudd fan day mooy tooñ ak mbon euh, ak soxor ak tamit euh, xaste ak saaga ak saaga parce que te yooyu nag xew na léegi gis nga gis nga gaay yi yàllaa ngi ci gaay yi yàlla mm-hmm. léeg-léeg nga gis waaye yàlla joo xam ne mm-hmm. ah dis na gann fa boroomam de dëgg la de waaw mu sol nag mbubb mu oyof mm-hmm. waaw nga tooñ ko baaxul mooy li baaxaw na laalaake waaw léeg-léeg way way naa ko sax am na ñoo xam ne kenn du leen laal <laughs> waaw Cheikh waay Assane nga delluwaat ci scène bi. waaw euh, parce que euh, man moom waxtaan ak yow. Hmm. ma waxaat ko dafa may neex. waaw te xam naa ne waxtaan bi li muy neex yëpp. Hmm. nga woyal euh, téléspectateurs yi ak sénégalais yi ñuy setaan moo xam fu ñu mënti nekk. Hmm. loolu moo leen di gënal. d'accord balaa ñuy wax ci li nga li nga li nga li nga ajoon. waaw soirée bi nga waroon def le quinze waaw dîner gala bi nañ ci waxtaan léegi nii itam parce que am na ñu bëri ñuy laaj euh, kañ la mm. kañ la ñuy retrouver wut ak Assane Ndiaye ci mm. salle bu mag mm. wala ci seen bu mag euh, balaa ngay tontu ci loolu mën ñu xoolaat euh, ay téléspectateurs parce que ci ginnaaw ñu ngi leen di jël di leen jox seen i ndéwénal mm-hmm. ci kaw itam ku dugg ñu jox ko ndéwénalam 88 628 22 22 wala 88 628 20 20 ñu euh, continuer euh, jël leen euh, bu dee ba tey yenn ci ay commentaires yoo xamante ni ñoo ngi koy jot mu jóge ci Facebook bi ngeen di seetaan ci compte yi nga xamante ne am nañu ko ci réseaux sociaux yi tey nag hashtag bi ndewenal la. Mm-hmm. wala tabaski TFM ku ci yónnee commentaire rek defe naa dinaa ko jébbal Assane. am na ñu bëri ñuy laaj naan. Ah. album cofeel bi. nu ñu mën a def pour am ko. waaw Raf Prod. moo ko def. Ah. mooy rap parce que cofeel dafa génn rek. waaw Dakar foo tourné. walaay ndeysaan photo Assane allah photo Assane Ndiaye cofeel. walaay ndeysaan. waaw euh, raf pour moom. Mhm. moo yore album bi yëpp. moo ko yore lépp moo ko produire moo def yëpp. donc ku soxla album bi rek. Mhm. booy boo nga jegee waa raf pour. Mhm. waaw mu ngoog ku ci euh, bëgg na nga euh, voilà voilà donc ñu jëlaat ay téléspectateurs jox leen seen Euh, ndéwénal hmm. balaa Assane Ndiaye ji delluwaat ci scène bi 88 676 05 05 ak yenn numéro de téléphone yi yëpp a ngi affiché wu en tout cas ci euh, suufu écran bi allo. allo kooku. allo waaw Baye Cheikh. waaw kookan la. maam Fatou. maam def. maam Fatou déwénati. waa fekkeel déwén. baal ñu àq. baal ñu. nu ngeen defak tabaski bi. Ah, waaw tabaski ay ngeen ci jàmm rek. waaw julli yow wala mbëkkul kenn ci biir kër gi. <laughs> lekk ngeen ko lekk ngeen ci yàpp wi ak modération. waaw. c'est bien sa léegi du ma la téye lu yàgg euh, balaa Assane Ndiaye di la woyal dama lay jox sa euh, sa ndéwénal léegi nii. dama la koy yónnee ci sa euh, téléphone portable. Mm-hmm. mu ngoog. Euh, euh, télévision Futur Média jox na la ndéwénal bu tollu ci deux cent mille. ay loo dépensé woon ci tabaski bi rek defe naa remboursé nañ la ko ak deux cent mille yi. ah merci beaucoup. Pape Cheikh kontaan naa moom kontaan naa trop. ñoo gën a kontaan ñoo gën a kontaan. oh mu ngoog yaa ko moom donc deux cent mille euh, yónnee nañu la ko ci sa euh, téléphone portable euh, nañu ko enchaîner puisque bu ñu demee ba ca kanam tuuti nag dinañu àggali programme bi tey moom di ngeen am soirée bu exceptionnelle ci télévision Futur Média xam naa ni ñu ngi mobiliser yeneen animateurs yi Abba No Stress ak gars yëpp tey ci guddi gi man nag ma def fi yëpp fi ndaanaan rek waxtaan ak Assane Assane wooyal leen seen xol sedd bu ko defee ñu nit ñu àggali guddi gi tey euh, fanaan ak yéen ci guddi tabaski ci télévision Futur Média ñu jëlaat beneen téléspectateur je rappelle que tey guddi gi yëpp euh, à tout moment bu ngeen wootee ci suñu ay numéro de téléphone euh, lu ngeen dépensé ci tabaski bi rek mën nañu leen ko rembourser donc ñu jëlaat beneen téléspectateur 88 628 20 20 wala 88 676 07 07 laataa ñuy àggali waxtaan beeg Assane euh, ci li mu ñu naral ba ñëpp di ko laaj euh, jëm ci salle bu mag. waaw ak soirée de gala bi nga xamante ni Assane. Hmm. yaa ngi ko waroon tëgg. après malheureusement yi xew yëpp. Euh, taxoon ñu bëtal ko. mais léegi foo ci toll. waaw mooy li ma la expliqué rek. Mhm. bon parce que wax dëgg yàlla. jotoon na jotoon naa man personnellement amoon na presque réservation yu toll ci woonu. ay quelques tables ah. oui ah yàlla xam na ko ah mais bon bi affaire bi excès nag sama doom ne ma. Mhm. moom moo ko def aussi mhm. madame Guèye moo ko def. ak mhm. waa Raf ne ma nañ ko dàq. ba xam ne maanaam. dëkk bi daal na. xam nga jamono ji dal ñu bàyyi ba après tabaski bu ko defee ñu jàpp benn jour. ñu def donc incha allah rabbi xam naa ne. ñoom ñu ngi ciy xalaat. mais yéen a ngi ciy liggéey. bien sûr tout à fait parce que fi mu ne nit euh, mm-hmm. mm-hmm. man mi maa leen ko gën a yàkkamti moom. Mm-hmm. waaw te incha allah rabi. na. mais am na ñoo xam ne ma fa ñëw. voilà club yi neex na. voilà mais am na ñoo xam ne mënuñu fa ñëw. effectivement impérativement buñ buñ jàppee bis rek ñoom. incha allah bu soobee yàlla ñu dem woyal leen xam nga. mu nekk nag. Euh, fet boo xam ne bu am solo lay doon. incha allah maa ngi wax euh, wala yaa ngi wax ni. boo limee mën nga fàtte. waaw maire Grand Yoff itam ku jàpp eh, ci ku jàpp ci ku jàpp sa combat cofé. ma Diop ma Diop Diop kooku ma Diop Diop waaw c'est mon petit frère. nit ku baax la ko ku sama rakk la. Uh-huh. kooku même su ma ko fàtte. Mm-hmm. garaawul garaawul uh-huh. parce que moom. man moom. Uh-huh. ñoo bokk yaay. ñoo bokk yaay ba tax na. Mm-hmm. macha allah moom pratiquement euh, euh, posters yi nga gis ci mbedd mi yëpp. Mm-hmm. moom la. Euh, Papis Thiam aussi maa ngi koy gërëmaale. et puis Euh, sa collaborateurs yi sànq wax nañu ci euh, orchestre bi. la Diouf mais da xamante ni. Euh, hmm. ba ñu xamee Assane ba tey. ñooñu ñoom waaye parce que Latir mu ngi ci. Périgeau moom dafa dem Màkka. Mhm, mhm. macha allah. Mhm. et puis xam nga David Ousmane. Youm. ak Badou mbay sama homme de confiance. Doudou sama petit frère. Ousmane Dia. ak Zoom mi nga xam ne mooy technicien bi. Mhm. waaye ba léegi nag ñëwagoo ci musicien yi. waaw ah. musicien yi nag naa ñëw ci. ah asu ah non non asu asu may bàyyi ba <laughs> ba ñëw ci musicien yi parce que damay bañ mu dóor ma. <laughs> te xam nga te xam nga musicien yi laa. musicien yi laa ubbee. dama bëgg ñu ñëwaat ci ñoom. a ah, aja ñi nga ci yàggal. waaw ñu ñoom ñëpp ah. Uh-huh. pratiquement ñoom ñëpp nag. Uh-huh. Ah, ku ci nekk defe naa ñoom ay at ay at xam nga nag euh, du ndaw. Uh-huh. donc mais nag ñoom ñooy ay jàmbaar. faaman. waaw xam nga. parce que ci at yooyu lu ne xew na fi. bien lu ne xew na fi lu ne am na fi. Mm-hmm. Mm-hmm. te groupe aussi tamit. noonu la mm-hmm. bon mais yàlla dimbil nañu. ci kattanam ba nga xam ne rek ñoo ngi jéem a gérer. c'est pas facile. metti na. parce que jouer boîte de nuit Pape. dafa metti dafa jafe. mais on le fait pas pour sax am ci xaalis. mais dañ koy def juste rek. pour exister. pour exister. waaw bégal ñi nga xam ne même bu dee benn wala nit. Mm-hmm. di nga ko jaral mu jël taxem ñëw. wala mu taal otoom ñëw uniquement pour euh, pour déglu la. Mm-hmm. mais mm-hmm. Euh, loo ci mën a dégg ñoom musiciens yi ñooy jàmbaar yi. waaw li ñu lay dégloo mooy li nga ñuy dem defalaatal léegi. atia euh, delluwaat seen scène. bu ko defee ñu àggali soirée bi tey. ci télévision Futur Média. ñu ñëw nag ci titre bi nga tuddee album bi cofeel mooy cofeel waaw tax nga tuddee ko cofeel mooy li expliqué sànq. mooy sama doom jooju. Mm-hmm. madame Gaye mm-hmm. maanaam euh, ba ñu xamante dafa yàgg. Ah. ba ñuy xamante boobu temps amagul sax borom kër. d'accord d'accord mu nekk sama doom. Mm-hmm. cofeel dox sama diggante man ak moom. ma nekk papaam. mu nekk sama doom. nangu ko nag ah, waa voilà loolu nag moo indi nag titre boobu. voilà donc dinañ déglu cofeel. waaw ah. Mate moom toj na dëkk bi moom. <laughs> ëpp na nañ ci commentaire boo ko wooyee. ëpp na waaw ëpp na bàyyi la nga delluwaat sur scène. ayca bisimilah Assane Ndiaye bégal ñu ak ngéwél gi. Euh, en même temps ñu leen di jël euh, ci euh, téléphone yi 88 628 22 22 wala 88 628 20 20 bu amee téléspectateur ñu jël ko léegi nii Abdou Aziz Soumaré suma classe de guerre ti Pape Samba Thiam déwénati ah ñoom Pape moor ñu ngi leen di wax euh, déwénati loolu équipe technique bi la euh, ñoom laa àndal tey ci guddi gi ah ñoom Pape Jean euh, ñoom Mansour Niang ñoom Mamadou Dia grand Dia déwénati ñoom Maman Henriette madame Diallo Muntaga Li ñoom Kumba ak waa SVA ñoom ñëpp ñu ngi leen di wax déwénati Pate Dia moo yore production bi moom itam ñu ngi koy wax déwénati Euh, euh, Papa Mané euh, Pape Jean bu service digital ay satasi mi nga xam ne ni mu ngi ci coordination bi tey xamul lu mu lakk yàpp ndax émission bi ñuy amal depuis sànq ci télévision Futur Média ak képp ko xamante ni rek yaa ngi ànd ak ñun depuis que ñu tàmbali émission bi ci équipe technique yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm kamu sekk nga xam ne ni bu la toppatoowee ci wàllu protocole rek nga kontaan donc kamu ñu ngi koy gërëm bu baax ak mon ami Poulo ah euh, pour loolu tamit ñu ngi koy gërëm ak waa logistique yéen ñëpp ñu ngi leen di wax euh, déwénati donc Assane la ñuy dégluwaat euh, en même temps ñu leen di jël ci téléphone yi numéro bu ngeen gis rek bu ngeen ko composé léegi mën ngeen am ci tàng tàng bi enveloppe bu toll ci deux cent mille day doon ndéwénal bu leen télévision Futurs Médias di séddale fii ba guddi gi di jeex ñu waat leen nag Assane mu dem ak ñun ci woy bi nga xamee ni moom la tuddee album bi di cofeel jotaay bi lu ne la Assane. mais bu doon bu doon bu doon bu doon soirée la Assane bu doon soirée la biis biis ngay dégg. waaw kon du jeexee noonu. waa biis kay biis biis kay. góor ñëwal. sañu maa laajaat biis sañu maa waxaat biis déedéet ñëwal ñëwal ñëwal fekk si waat ma ñu euh, ñu àggali guddi gi Assane Ndiaye ak ngéwél gi tey defe naa lu ñu naqari woon rek neex nañu. wallaay ndeysaan voilà ci guddi tabaski. Euh, di euh, baaluwaat ñëpp ak. tey baale. voilà defe naa tey. Euh, guddi la goo xamante ni bokk na ci guddi. Mm. yu ñu dootul euh, fàtte ndax Assane mii euh, yàgg bégal sénégalais yu bëri. wax naa ko sànq dafa intemporel parce que accompagné na génération yu bëri. Mm. da ngay gis ni léegi am na ci ay mag yu ànd ak seen doom di baali Assane Ndiaye. ñoom ñoo nekkoon ay ndaw. Mm. daan dem di baal Assane Ndiaye. donc ñoom defe naa tey bég nañu. bu demee nag ba génnee cofeel Euh, boo ci raconter sa histoire ak Clara. Hmm. Euh, daanaka da ngay maas nuun gi rek. tout à parce que cofeel googu noonu. waaw moo mooy sa diggante ak sénégalais yi Assane. waaw cofeel googu. parce que mooy li may wax rek album bi yëpp morceau bu ci nekk mën nga ko jël nga teg ko cofeel. cofeel effectivement parce que àddina nag dara nekk fi nag lu cofeel. wallaahi wallaahi dëgg yàlla parce que euh, nit ku ne. Hmm. te cofeel dafa bari façon pap mhm. parce que dangay gis sax mala am ci moom cofeel mhm. xam nga dangay am benn objet wala nga am ay dàll mhm. mais daf def ci am benn benn daal benn paire daal boo xam ne dafay neex lool wala nga ay montre maanaam cofeel dafa bari donc maanaam euh, nit mën na am cofeel ci lu ne waaye rawatina nag nga am cofeel ci doomu aadama waa loolu moom c'est important parce que euh, doomu aadama àll yàlla la donc euh, bu fekkee ne yàlla dafa def cofeel seen diggante mhm. donc macha allah mhm. te loolu nekk démb mhm. euh, tey doog a ñëw euh, ngeen di ko fonk parce que léegi euh, bariwul ñuy sàmm trop coloré te coloré dafa am solo pap parce que coloré ci coloré ci la lépp xaj ci la lépp xaj donc bu fekkee ne que yàlla bàyyi na la ak ñu mel noonu da leen di jàpp nga leen fonk parce que nit ñi léegi amatuñu ñu effectivement waaw bareetul am na ñu am coloré mais bareetul léegi moo tax c'est comme xarit. Mhm. man damay jàpp ne que xarit bareetul tamit. Mhm. Euh, mais bon euh, nit ku nekk nag. am nga ñoo xam ne ñoo xam ne moom. Mm-hmm. ay xarit nga leen mën a tuddee. mooy mm-hmm. leen tuddee àndandoo mooy leen tuddee dara ay maanaam see xarit lañu parce que tey euh, bu yàlla tres boo reyoon sax nit sax. Mm-hmm. mën ngaa dem ci ñoom fëgg leen. ne leen reenaan reenaan nit. ñu suturaal ñu suturaal la ànd ak yow. loolu mu ngi am ba tey am ah si am na am na ah pap am na de. am na de mais tey am na tamit ñoo xam ne. Euh, euh, ni ko sama mag ju baax ji daan waxee. yàkkamti wuñu ludul. gis nit ku am jafe-jafe. am na ñu toog di xaar safaan. tout tout à donc loolu nag yàlla nañ ci yàlla musal. parce que mhm. loolu àddina bu gàtt bi ak jamono ju gàtt ji. Mhm. Pape gisuma lu fi jar loolu. Mhm. yàlla nañu yàlla may xol. bu set wecc xol bu leer. waaw amiin dafa am loo xamante ni itam dama koy waxaat. <laughs> Euh, maanaam euh, thèmes yi nga yàgg woy yëpp. démb nga ko woy. waaw mu doon ay thèmes yu méngoo ak jamono. ak jamono waaw. waaw loolu mooy li mooy métier. waaw li may wax am métier xam nga tey bu fekkee ne da nga jël benn morso mu am texte bu riche. moo xam yaa ko def. moo xam dañ la ko defal. man nag guleet ci album bi laa am ay textes yoo xam ne. à part mais yëpp dañ ma ko bindal. waaw waaw waaw bi ma woy coon. Uh-huh. ak euh, ak beneen peut-être. waaw Mass Ndiaye bi non ci morceau yu bees yi. parce que album bi. Uh-huh. neuf titres la. neuf titres yu bees la. macha allah. Euh, deux yi. Uh-huh. mooy jongoma bi. Mass uh-huh. ak Mass bi waaw. waaw yëpp yu pëy pëy pëy pëy yu bees la. Uh-huh. donc pour la première fois album bi. ba ma dalee woy ba tey. ma am album boo xam ne lépp dañ ma ko woyloo. maanaam lépp dañ ko bind. jox ma ko. voilà ñu ñu ñu def ko yëfu journaliste. waaw projet yi bëri na. macha allah waaw. waaw projet yi bëri na déjà mooy benn. Euh, grande nuit boobu. voilà dañ koy àjji dañ koy allah ba tey waxoo ñu. parce que parce que loolu di nga ko joxe ndéwénal tey. parce loolu loolu. Araf Prod euh, ñoom ñoo xam. bis bi exactement parce que te buñ ko xamee tamit xam naa ne ñoom xam nga ñoom. Mhm. Euh, lépp lu ñu def day siw nag. Mhm. Ah, ñoom yàlla la may loolu. dëgg la macha allah lu ñu laal mu siiw. <laughs> wallaay macha <laughs> allah donc bu jóge ci loolu. Uh-huh. gambe ngi taxaw. Uh-huh. incha allah incha da ngay dem Gambie. waaw uh-huh. Angleterre ngi taxaw aussi. Angleterre incha allah rabbi nag Europe doog a ñëw bu soobee. voilà donc naa yéen ñu ko yàkkamti. waaw uh, Assane date bu mu ci jàpp rek. waaw uh, dinañu ko uh, annoncé. sama rak bële mu ne. waaw pour ma wax nekk lendemain tabaski incha allah. maa ngi sama boîte alizé. suba yaa ngi alizé waaw suba waaw suba suba maa ngi alizé. incha allah boo jógee ci émission bi togoo fenn. non non damay dem tëdd nag. noppalu nelaw euh, daal di reposer wu récupérer uh-huh. ndax euh, ndawal li xaw ma na parce que yaa ngi koy wax sànq bu <laughs> njëkkoon ah. bisu tabaski lañ daan tëgg waaw mais léegi lendemain tabaski la ñu xewal parce que donc tey bu dee tabaski suba da ngay tëgg Sahel retrouvailles gars yi def seen alizé plutôt ma naan Sahel <laughs> eh, Pape Cheikh Faye ndeysaan Moussa Gueye bëri doole Moussa Gueye doole ndeysaan Maria bi laay ndeysaan Mounas Ba bi laay ay eh, Pape euh, Cheikh sista sista eh, Eva nag nga nag dañoo yàgg nag loolu du tey <laughs> man gisoo bi nga wooyee ngay ngay ñëw di nelaw. li may feebar yëpp maa ngi force pecc mi. walaay ndeysaan walaay ndeysaan macha allah macha allah. ndax yàgg la bëgg. walaay man sañ na ma ni. comme ni ñi woowee seen bopp doomu Assane Ndiaye te Assane mënu leen jur. man ci doom yooyu laa bokk. àddina dafa garaaw te du te du tey. Pape waaw àddina dafa garaaw xool. Uh-huh. dañ daan wàcc man yow. Moussa Gueye Baye Doole Maria. Uh-huh. ñu àndandoo jóge Sahel. wallaahi yoroo dara yoroo dara. ñuy dox ba Fass <laughs> ah! mais àddina daal àddina daal bu dee waa. dara bëggoon la lool ndeysaan. ndeysaan kooku amul woon. dem ci yàlla walaay ndeysaan. Moussa bëggoon lool Moussa Gueye Baye Déwle. wallaahi ak Awa Mbaye. Eva Mbaye eh, wallaahi ndeysaan ñoom dañ maa bëggoon bëggal koo xam ne yéeme na. wallaahi dafa yéeme lool. yaayam ñu ngi koy ziar bu baax maman Raki. Eh, yaayu Eva barki démb rek mu ngi yóbbante. Eh, nuyoo di ko jaarale ci Rama Soumaré donc moom ñu koy ndokkeel bu baax suñu yaay la maman Raki très adorable. macha allah yàlla na yàlla gën koo dëgëral. alhamdulilah en lim juum mais képp koo xam xam ne daal yaa ngi béggee Assane Ndiaye ñun mm-hmm. euh, ñu ngi lay gërëm ndax ñun dañu am cofeel euh, ci moom euh, defe naa balaa ñuy dem ci kaddu yu mujj yi mën nañu xoolaat bu amaatee ay téléspectateurs ñu jël leen mm-hmm. Eh, dox leen eh, seen i eh, ndéwénal mm. balaa Assane di dem noppalu puisque ah. suba lendemain tabaski suba ah. Ah. incha allah day tëgg soirée boo xamante ni alizé na ñëpp ñëw yi tabaski yi buñ ko buñ ko simmee nañ ko solaat suba waaw incha allah suba day mel ni défilé de mode voilà lu waay sañse ci tabaski bi rek na ko indi ci soirée Assane Ndiaye donc retrouvaille la nar a doon mm. incha allah 88 628 22 22 wala 88 628 65 65 allo allo oui. kooku. Maguette. yow la. Maguette. Maguette. waaw Maguette naka. Cissé. Maguette Cissé. yaa ngi woote fan. maa ngi wootee Dakar. très bien yaa ngi wootee Rufisque déwénati Maguette. ah fekkee déwén baal ñu àq. nu ngeen def ak tabaski bi. ah tabaski bi xar bi mbëkku man bu ma lekkee yàpp damay kontaan de. <laughs> yow de xaw ma kan moo lay summi. man boobu man naa yow yow yàpp ku la ku la ni nga koy waxee sax xam ni ku ku ko bëgg nga. ni nga ni ngay waxee yàpp yàpp. Ah, <laughs> yow ku bëgg yàpp nga léegi nag comme comme yàpp wi jeexagul. Ah. dama lay jox loo ko digérer rek ndéwénal bu toll ci cent mille. ah mooy sa mooy sa ndéwénal bi la TFM may. jërëjëf waay maa ngi la koy yónnee léegi nii ci sa euh, téléphone portable. alaykum yàlla fay tey seen sa kaw tamit kontaan nañu sama nuyul ma ko nuyul ma ko lu bari nuyul ma ko lu bari man mairie samay xarit lañu nuyul ma ko lu bari na ko bu mu ñu fàtte ci ñaan. jërëjëf. jërëjëf. jërëjëf kontaan naa merci d'avoir rappelé euh, bu amaatee keneen ñu jël ko continuer leen di woote en tout cas même bu ma fi jógee léegi li ci des itam da ngeen di mën di woote euh, pour jot seen i ndéwénal euh, Assane man kontaan naa. maa ngi gën a kontaan Pape. yan kaddu ngay tëjee jotaay bi. xanaa ban message. waaw ngay jox sénégalais yi. waaw xanaa ginnaaw bi ma bi ma la remercier. Mhm. parce que tamit wax dëgg yàlla yow. sama xamu lu may wax doom nga. Mhm. jarbaat nga rakk nga. Mhm. Mhm. parce que comme ni ma ko waxee sànq rek démb la du tey. donc ma am mbégte. ñu toog nii euh, maanaam euh, ci album bu bees bi cofeel gi. parce que biñ commencé ba tey lépp cofeel la. wallaahi lépp cofeel la lépp cofeel la. wallaahi te tamit àdduna boo koy xool ba xool ko tamit lépp cofeel la. donc di dellu di waxaat euh, àddina bi yëpp déwénati. di wax ñëpp ñu baal ma àq. man tamit baal naa ñëpp. mais amaloo kenn àq na. <laughs> Ah, walaay ah, ah kay walaay ah kay walaay ah kay walaay. ayoo génnee ñëpp bég. ah kay walaay te aussi mën ma toog fii te du ma nuyu. Mhm. Euh, di déwénatali aussi sama grand frère waa euh, mhm. di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko jàmm. amiin ak sama magu bopp euh, Maradien. Mhm. Alaaji Maradien Alaaji Maradien moom sama magu bopp la moom. dañ ma ko dénk. nit ku baax la voilà ndeysaan macha allah donc di gërëm àdduna bi yëpp di ñaan rek. yàlla sama borom. comme ni ma ko sama xarit boobu waxee woon Assane. Mhm. wéy la teranga sénégalaise. wallaahi wallaahi euh, donc teranga boobu ñu ñu xamee. Mhm. yàlla nañu yàlla dimbali. Mhm. ak mag ñu baax ñi fi ne. ba loolu ñu sàmm ko. amiin nañu defaraat jikko yi. yéenente jàmm. Euh, di nëbbalante ay ayib. ndax doomu Adama buy dund. mënta ñàkk ayib. waaye yàlla mi ñu bind sax dañu. fa ñuy nëbbal suñuy ay. daf ñuy suturaal daf ñuy kon bon. Euh, nañuy def bëccëg merci beaucoup. Mm-hmm. kon bon euh, nañuy suturaalante. Mm-hmm. te di jëllale. Mm-hmm. di jéggale. lu waay mel. nga xam ne yàlla la. lu am. nga xam ne yàlla la mm-hmm. nga ñaanal ko mm-hmm. yàlla yokk ko mm-hmm. ñaan googu nga koy ñaanal yàlla yokk ko ñaan googu après dafay retourné waat ci yow waaye bu fekkee ne nit dafa mel ni wala nit dafa am li nga euh, yéene ko safaan wala ngay wax ci moom loo xam ne yow wóoru la xamoo ko fekke woo donc su boobaa te nag man dama yaakaar ne ñu bari dañoo gëm yàlla mais wóoruwuñ ko ah. parce que dama yaakaar ne am na loo xam ne bu fekkee ne que wóor la ne bis dina ñëw. Mhm. ñu wax ñu wax bu mu xóot ñu suul la. wallaahi yaakaar naa ne am na yoo xam ne boo koy def sax war ngaa tiit. ndax bis boobu. coon waxoon na ko sax. waaw billaay dëgg la. dëgg la te nag ku nekk nag da ci jaar. wallaahi te euh, euh, war nga euh, booy dem. Mhm. a ah, nga yóbbaale loo xam ne doo suma su yëgoon. te su boobaa diggante nit ak nit la. diggante nit ak nit moom yoonu yàlla nekk ci voilà donc loolu moom yoonu yàlla yàlla nekk ci. loolu suñu diggante voilà donc moo tax ba nit ki. Mhm. Euh, booy gis nit. Mhm. muy dem. Mhm. xamoo nu ko yàlla bindee xamoo nu mu juddoo. waxal ci moom la nga la nga xam. wala soo mënta wax ci moom jàmm. et sax Pape Cheikh. nit sax dafa dafa war a mën mel neneen. la nga xam ci sax jarta wax. mais. waxal lu baax. Mm-hmm. lële. Mm-hmm. yow sax même boo ko xamee sax. Mm-hmm. mais nëbbal ko. wallaahi wallaahi wallaahi. xam nga lan moo tax ñuy wax naan que euh, mooy yàlla il faut tant de personnes. fekke ko ah. mais loolu. du ma sa am ci àddina yàlla fu leer la ko teg mais si mais loolu loolu loolu loolu du am mooy mooy daam kon bon ñun yàlla suñu borom dafa ñuy suturaal mhm. mais kon pourquoi ñun tamit suñu suturaal suñu bopp di suturaalante ñeneen donc yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi yàlla may ñëpp jàmm euh, nu waay mel ñu ñaanal ko yàlla lu waaye am ñu ñaanal ko yàlla mhm. tàppe xol yi mhm. defar xol yi ba pare jikko yi mhm. ñu defar jikko yi yéen ñëpp jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu jërëjëf Assane ñu lay gërëm bu baax euh, gërëm ñoom papis euh, defe naa sa staff ci loxo papis ñaa laa koy teg euh, jox loxo def remercier equipe technique yi ma àndaloon teg ko ci loxo Pape Samba Thiam bàyyi leen nag li des ci programme bi tey ci guddi tabaski ci télévision Futur Média déwénati na na Pepsi Premium Energy Drink, la différence en matière d'énergie naturelle. Une boisson qui allie la qualité et l'authenticité. Des saveurs délicieuses, un goût sensationnel, le tout préparé avec soin à partir d'ingrédients naturels. Real Mix Premium Energy Drink, c'est un pas en avant vers